jërëjëf sëriñ Cheikh ci nuyu bu am solo bi laaj bi nga xam ne moom la ñuy njëkkee dafa wax ne ndax koo xam ne léeg-léeg day tàggoog sagoom ndax bu wooree ak kooram dana wér.
waaw sëriñ Cheikh de bokk na ci sàtt wéru koor nga ànd ak sa xel koo xam ne day xam léeg-léeg waxtu woowu nga xam ne ñàkk na ko xelam ak kooram du wér bu fekkee yàlla daa dogal xamteel bi mu koy dal mu dajeeg waxtu bi nga xam ne ci lay jàpp du jot kon bis boobu du ko mën a am koor ndax yéene ji da koy rëcc ni ki noonu tam fekkee daa xam lépp ci bis bi yëpp boobaa tam koor ga du du mën a woor bis boobu da koy dog te bu demee ba bañ waree nag mu fay bis boobee loolu daal mooy atteem ci ni ko borom xalil andi waxee nga xam ne fekkee daa xam ci waxtu bi ngi xàtte da ko xam gi daaneel nga xam ne ci lay waroon yéene koor gi kon bis boobu da koy raw moom fekkee dajale ba ci biir bis ba nag mu door koo daal dañuy xool ba xam yàgg naa moom wala yàggut fekkee la ëpp ci bis ba la xam kon bis booba du ko du koy daal dog wax ñu li ko tam day dog fekkee la mu xam nag biir gàtt la te fekkoon na booba fajar jàll kon bis booba mën na koo libaale ci mën na koo àggale mu bokk ci koor gi allahu muwaffiq as-sawab
mbokk mi moom day laaj ne lan mooy atteb ubbee ak julli ci a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim
waaw sëriñ Seex de tàmbaleeg julli ci a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wala bismillahir rahmaanir rahiim dafa bokk ci ci julli farata ci masabu Maalik ni ko borom Xalil waxee wax na wa kuriha bi fardin ñoom ñaar dañ leen sib ci julli naafi julli farata ci masabu Maalik mu dee julli naafi nag sañ na ko caa def sëriñ bi sax wax na ko ci aljawhar na fi sox ne wa karihu xawqalatan wa basmala fil fardi la fi nafli misl azbala bokk na ci liñ sib ci julli farata nga tàmbalee ko lu mel ne laa xawla wala quwwata illa billah mooy xawqala wala nga wax bismillahi rahmaani rahim wala nga wax refa azbala te mooy wax a'uuzu billahi min shaytaani rajim kon sëriñ Cheikh a'uuzu ta'awus muy wax a'uuzu billahi min shaytaani rajim dañ ko sip ci mbirum Maalik ci julli farata bu dee julli naa fi daganal nañ ko ci allahumma faqi sawaab
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne day liggéey ci barab waaye aar bi muy tàmbali liggéey mooy ginnaaw tisbaar te bala faa jóge géewees mu ne ndax kon dagan na mu boole tisbaar ak takkusaan
waaw sëriñ Seex da boole ñaari julli bokk waxtu lu mel ne tisbaar ak takkusaan wala timis ak gee sax na ci sunna bari na addis yi ci ñëw bokk na ci addis bi ci ñëw te ñëw ci saxiixayni Anas ibnu Maalik radiyallahu taala anhu waxoon ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam itartaxala qabla an tasiixa samsu axara zuhra ilaa waxti al-asr summa nazala fa jamaa baynahuma yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa def bu daan tukki te jant bi rëccëgul maanaam tusbaar jotagul day wéy rek ci tukki ba bu demee ba ci mujj waxtu woon ak ba te tàkkusaan tàmbali mu boole ñaari julli foofu si lañ sukkandiku ba ne kon boole ñaari julli bokk julli waxtu lu dagan la ci ngir yépp bu dee ngiru Maalik nag moom lañ ciy sant lañ ciy sàrt ruxsa boobu ñu ngi koy may koo xam ne nekk dina am benn benn benn saal ak saal nga boole ko ñu fekk ngeen nga boole ko boole ngeen ne ñaata ñu boole am na boole boo xam ne jam sawri yi lañ koy wax nga xam ne maanaam day lu boole rek waaye daanaka sax du boole mooy da ngay bàyyi ba tisbaar bi muxtaar mi catul muxtaarum tisbaar nga julli tisbaar fekk taksaan muxtaarum dugg nga daal di koy julli moom it boobu boole bu fekkee tukkee ko waral doo ci am bàkkaar boobu boole sax dagan na ci boo tukki sax dagan na moom beneen boole bi nga xam ne ci tukki réew dagan nag mooy booy tukki te mu wóor la léegi ngay bëgg a war nii ci tukkee boo xasee yéeg bala ngaa mën a wàcc jant soo bu dee tisbaar boobaa sañ ngaa boole jam jam jam wér-wér jam taqdiir mooy julli tisbaar takkusaan doola dugg ci la ngay war nga xam ne bu jant soo bu wàccee doola dal di julli timis loolu mooy jam dëgg-dëgg ja ñaari boole yooyu bu ñu sama doon rek li koy waral ay sabab lay doon yoo xam ne bokk bokk na ci ñu tuddoon léegi muy tukki bokk na ci tam ku tawat tawat koo xam ne ragal nga ne wax sàng bu ñëwee wax tawat da la daane kon sañ ngaa dajale ñaari julli yoo xam ne bokk dañoo bokk waxtu def jàmm taqdim bu fekkee tam day taw tam muy guddi guddi te muy taw sañes naa boole timis ak gee ci jàkka yi ak jumaa yi waaye lii borom borom ba te bokkoon ci barab yi ñuy boolee jullitam mooy arafa ak musdalifa bokkoon ci sunna arafa gisu arafa bi ñu dajale tisbaar takkusaan julli ko jamu taqdim xam ne ñu tisbaare daal ci seen takkusaan bi timis itam ñu boole ko géej bi ñu àggee musdalifa yooyu daal mooy sabab yi nga xam ne mooy may nit ki mu boole boole dëgg-dëgg waaye nag mbokk bi li muy laaj muy wàllu liggéey limaale woon ko ci mbokk di liggéey daal li ñu ko mën a laabiire mooy fekkee mënta ñàkk da dafa jàmm sawar yi mooy day bàyyi ba moxtaaru tisbaar bi cate mu dul tisbaar daal ci sël takkusaan bi boobaa doo am bàkkaar ci anama gu boole ko waaye sañ te boole ñaari julli yi te ci ngantul liggéey bi rek ci jàmm taqdim maanaam tisbaar jote mu daal di ko julli si sël takkusaan saa si loolu fo xaar yu mayuñu ko wallaahul muwaffiq sawaab
jërëjëf sëriñ bi kii moom nee na ndax koo xam ne dafa dem ci ab jaaykat ne ko wecc ma kayitu téeméer mu ne ma yor mu ne ko yorul weccat te fekk dëgg dëgg yor na weccat mu ne ndax wax googu mu ko wax ne ko yoruma weccat dañ koy jàppe wax lu amut
waaw sëriñ Cheikh de loolu wax lu amut la ndax li waroon ci moom mooy mu dogal ko ngànt ci anam geneen koo xam ne dana xam ne li mu bëgg ci mënu ko am te du ci waxante lu amut ndax wax lu amut bokk ci bakkaar yi gën a mag yi nga xam ne nii yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko laajee ne ko ndax ab jullit dana nekk dana nekk ku nay dana nekk ku nay mu ne waaw mooy waaye bañ ko laajee ne ab jullit dana nekk ku ku wax lu dëgg dana déedéet ñàkk wax dëgg mu bokk ci ak jullit moo tax ku mel noonu daal moo naa seet bi dana ngànt lu ngàntalee ba du def la waa la kooku bëgg te du ci waxante lu amut ndax waxam ci benn addis ne iyaakum wal kasiba fa innahu ma al fujuri wa huma fi naar maa ngi leen di moytandiku loo wax lu dëgg ak ndax moo ko ak kàccoor ñoo ànd te ñoom ñaar ko ci sax ci bàyyiwoo ko wala yaasu billaahi sawara lañ la jëwale borom xam-xam yi fi ñu wax ne man si pas wax loo xam ne rek xëy na du du dëppoog la am mooy ci ñetti mbir ni ñëwee ci saxee Tirmisi yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne wax lu dul noonu daal fekkee mën naa dagane ñetti barab rek lañ ko maye mooy gis ñaari diggante julli yoo xam ne seen diggante dafa ñagas nga wax a wax ba seen diggante la taxaat mooy islaahu zaatil bayn sañ si dafa wax wax joo xam ne xëy na mën naa bañ a sos si dëgg sax waaye dañ caa bëgg a dugg dugg dugg dugg rafet seen diggante may nañ lu mel noonu ba tey bu nekkoon ci ab peex deer mooy may nañ ci nga wax ci loo xam ne ni da ngay fexe ba julli di gañe donte wax ci sax tegee bokk te laam ndax dañ ñëw alxor alxar bu xutaatul xeex moom faaw naxante da cee am la ca mujj mooy nit ak soxna am may nañ ko mu wax ak moom ci wax yoo xam ne day daal xelam rek waaye sax mën naa lu mu koy wax doon lu doon la am anam yooyu daal lañ gis ci hadis ne mayees ne ma ne sa cee wax loo xam ne dëpp wut ak la am te ku mën a bañ a def sax mu gën kon mooy tuñu ko bañ a wax lu dëgg ci anam yëpp mu gën kon mbokk bi anam gi ñu laaj moom li gënoon mooy mu fexe foofu dogal ngant ci yeneen anam yoo xam ne du bokk wax de wax la nga xam ne moom moom la wax ne ko óomu ko fekk am na ko wallaahu muwaffiq lis-sawaab
kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa tukki diggante Touba ak Dakar may nañ ko mu wàññi ak julli ànd ak ne jamono yi nag jumtukaay yi ñu tukkee amul ay coono
waa sëriñ sax de wàññi julli moom ñu ngi ko tënk rek ci ay suróor yoo xam ne mooy rek diggante bi ngay jóge ak ba nga jëm na mat masaafatul xase masaafatul xase fiqul maalik yi wax nañ ne mooy juróom-ñeent juróom-ñett kilomètre juróom-ñeent quatre-vingt-neuf kilomètre su ko matee rek te suróor yi dina si am mooy tukki bi mooyoo ci yàlla te fa nga jëm naroo fa am ñeenti fan kooku rek moom mën naa wàññi julli donte day dugg ci donte du sonn ci tukki bi sax ndax xikma bi wala illa bi tënk ñu ko ci masaqa bi ci nekk ndax bu ñu tënkoon moom bu masaqa bi jeexare mooy coono bi mën naa am xukkum bi yëkkati ko waaye dañ ko tënk ci asafar mooy tukki boobu ci lañ tënk àtte bi moo tax kon tukki boobu ci lay tënk rek bu fekkee daal day tukki te yooyu dajee ci moom diggante bi na diggante tubaab Dakar mën na loolu daanaka jege na ñaar téeméeri kilomètre kon fekkee nag am Dakar ñeenti fan am na sañ-sañu wàññi te mooy sunna ci moom mooy julli nga xam ne julli ñeenti rakkaa la tisbaar ak takkusaan ak gee mu julli leen ñaar rakkaat bu ci nekk loolu mooy sunna ci moom su ko deful na julli ñeenti rakaatam te am na julli julli waaye mooy mu jëw yàlla sunna lay sunnaan ci moom mooy mu defoon wàññi boobu nga xam ne lopp sa la boo xam ne yéen ti asaas la ma waxoon ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko defal julli gi wallaahu muwaffiq lis-sawaab
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeg soxna soo xam ne day nàmpal boroom këram
waaw su fekkee sax day nàmpal daa bokk ci yi sabab ak araamaan di diggante jigéen góor ci asbaabul muharrimaat yi la bokk waaye nag fiqhul maliki wala fuqaha yu bari dañ caa sàtt ki ngay nàmpal da nekk gone jamono yi mu koy nàmpal boobu fekk feragut kon diggante boobu bu nàmpal doxee seen diggante bu dee borom këram ku mel ne borom kër nag ñaare mag lay doon kon bu fekkee daa nàmpal borom kër borom këram soxla si daa nàmpal borom këram doon am benn jeexatit bi def ci sëy bi ndax liñ gën a miin fi mooy borom kër yi ñaare mag la ñuy doon xëy na loolu ma naa am nag na am borom kër bi naan ci soowum soxla si dara boobu atam wala meewam lu tax sëy bi mu jeexital xam naa daal am na lu foqaa yéen di yoo xam ne dañ ko tudd al fiqhul istiraat yi mooy loo xam ne xëy na dañ naan boo amoon loolu léeg-léeg foqaa yi ko def ci ay masaayil yoo xam ne nii amagul sax waaye te li muy am du bari waaye dañ dañ koy dañ koy tëral rek ne bu amoon daal lan atte misalan ñuy wax ne koo xam ne da nga amoon doom ju góor ju ndaw nga xam ne daa toll ci nàmp nga takkal ko soxna loolu daga na bàyyi man ko may soxna comme comme may doon mag moo xam ne moom xëy na am na doom bay dàmpal xëy na sëy boobu nekkoon moo moo jërëjëf wala daal am na lu ko sabab mu def am ba am soow kooku bu wëlbati ko nàmpal xale boobu ñu ko may xale bi toll toll ci nàmp rek day daal di aram ci moom moom waa xam nga masala boobu dañuy am bëriwul xëy na bu xaay dañ ko wax rek ci xale yi boo fa demee am na ci ak yu mel noonu waaye bu dee li nga xam daal mooy borom kër bi ñaare mag lay doon bu ko soxna sa nàmpalee itam du am benn jeexital ak sëy bi bokk ci nga xam day sabab ak aramante seen diggante
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci koo xam ne day jëfandikoo al wirdul maqul mu dagg ko ngir delloo am nuyoo wala mu dagg ko ngir jéggi ñuy noddu muy roy kay noddu
waaw sëriñ Cheikh de am na laal bu mel ne laajoon nañ ko sëriñ bi ci boppam sax buñ delloo ci fataawa yooyu suñ xarit xaaral bi su dajale woon def ci baax su baax solo boobu dañ daal na ko ci taxeex na daal na ko ci muy fatwa boobu sëriñ bi moom laajoon na ko ne ko kooku sax dafa laajoon ne ko may def yurdo yi sama waajur wooma wala kenn wooma ma wuyu ko luy àtte bi sëriñ bi wax ko ci ne ko wax ci biir yurdo daal moo xam sa waajur la woo wala keneen moom gënul boo ko bañee bañ a def moo gën ko bañ a bañ a bañ a jenn wax ci biir yurdo yi ba keroog muy jàpp ko sa tàmbali ba ba muy jeex doo ci dugal genn genn wax ci bokkute wax yu ndawoon bu fekkee nag li la war li lay wax ni daa nekk loo xam ne boo ko tontu mën naa andi jëyee wala lor sababoo ca kon may nañ la nga dagg wirdo bi te tontu kookee day laaj moo xam sa waajur la moo ko xam keneen la nga tontu ko te boo waxtaanee ba noppi wax ko la nga koy wax nga delluwaat tàmbaliwaat wirdo woon da ngay tàmbaliwaat tàmbaliwaat wirdo boobaa comme tàmbale woon nga xam ne lu njëkk da nga koy wàcc tàmbul ak tàmbul bu yees kon sëriñ bi moom dañ ko laajee ci fataawa yooyu sëriñ suñ mbokk moom dajale sa sa doxali bu sa tontu loolu la ci antu wallaahu muwaffiq lis-sawaab
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne day julli te yërutum jàpp
waaw sëriñ Cheikh de jàpp dafa bokk saa fi julli yi nga xam ne mooy tax julli wér koo xam ne daa julli te jàppoo tey tiimoo bu fekkee am nga am nga ngantul tiim tiimoo kooku sa julli du wér loolu sax mën na ko génne ci diine bu fekkee da ko tey daa tey rek dem jekki-jekki di julli loolu te jàppul loolu bàkkaar bu réy réy la boo xam ne bu mu delloo ci muxtasaru Cheikh Khalil ca salaaba ma ngi cee wax naan inna man ta'ammada as-salata biduni tahara ba'dama sami'a qawla Allahi azza wa jalla ya ayyuha allazina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi nee na ku xam ne aay bu xam nga ko li muy li muy tekk xam nga ko mooy bu ngeen di julli na ngeen ko waajal ci njàpp nga xam loolu bu noppi daal di julli te jàppoo te tay ko loolu moom day da lay génn ci ci lislaam ci dañ lay jàpp koo xam ne mu tat na ndax da ngaa wuteeg laay bu wér-wér boo xam ne amul benn xilaaf bu fekkee nag tayu ko da ko ak téere ko ci yóbbe wala ñàkk xam moom boobaa da koy tuub rek te julliwaat julli googee ndax julli boobu baaxul julli goo xam ne jàppoo te tiimoo tiim sax doo ko seen waxtu nekk waaye fekkee amoon ngàntul tiim tiimoo booba googu julli doo doon julli bu baax faaw da nga koy da ngay jàppaat wala fekkee am nga ngàntul tiim nga tiim te fayaat julli googee wallahu la saql sawaab
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa jaxasoog soxnaam ci bëccëgu weeru koor lu ëpp benn yoon te tay
waaw sëriñ Cheikh de jaxasoo dafa bokk ci yi yàq koor léeg-léeg sax mu yàq ko waral waral fay ak kafaara waral fay ak kafaara kafaara mi ngi kafaara ci leel juróom-benn fukki miskin wala woor ñaari weer yu sësalo wala ba jaam di am mu goreel jaam ni mu ko tënk ci ñaari yoon nag loolu moom du ci sart bu ko defoon benn yoon rek mën naa yàq koor fekkee moo ko tey te amul benn ngànt nga xam ne am na muy demee nit ki dana ko sañ ci weer koor ndax fekkonte ne san soxnaam amoon na ngànt lu ko teewoon a woor ba wóorut moom it xëy na mu amoon ngànt lu ko tee mën woor ndax daa tukkiwul bay dooru ñëw xëy yu mel noonu fuqaha yi day wax ne bu ñu àndoon tam du doon dara ndax ñoom ñaari doon sañ seen dog waaye daa gën a am sañ seen dog daal moom ba noppi jëf jëf jooju moom kooram yàqu na te moom faaw mu fay bis bi te fekkee da ko tay nag da ci boole kafaara àgg nañ sax bu fekkoon daa fexe ba man ni moom génn ci lu booloo sax tam tay ko loolu sax day day waral kafaara sakkant maanaam bu fekkee booloo la def loolu xew ca kon daal koor sëriñ sax jaamu yàlla bu màgg màggal boo xam ne ëpp naa jaaxaal ëpp naa faye ndax bis bu ci xas jàll rek xëy na mën nga ko fay waaye bis ba nam toll woon ak la ci nekkoon ci xew woor bu dana nga xam ba wax sax koor lépp loo xam ne da ko dara yàq moytu ko allahul muwaffiq sawab
mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne ak docteur daf na ko mënoo woor waaye moom ci boppam yëg na ni mën naa woor ndax kon day topp waxi docteur wala lay sukkandiku moom ci man-manam
waaw li gën di kooku naaw am na roxsa topp te docteur bi ko wax loolu docteur la boo xam ne bu fekkee docteur bu julli la xam àtte koor wala bi bu doon wóor di wax ko loolu mën naa sukkandiku ci wax ñu ba dox loolu sax moo gën ndax bu ñu jëfandikoo aaya suñu borom bi dama laa toog ko bi ay ji la taxlu ko di day mel ne toog bi moo gën ci moom ndax bu wooree tawat yokk wala mu jëlee ci lor day mel ne moo ko yóbbee boppam teewul nag bu dëgëree bopp bu wooree koor ga mu baax waaye bu dogoon daal dogoo nga xëy na moo mu gën a dëppoo maqaasid sharan mooy sariya li mu jublu rek mooy aar nit ki ginnaaw may na la boo amee ngànt ko dog bis bu koor gi jàllee bis ya nga dogoon nga fay ko ci bis yooyee kon mën naa jëfandikoo ndax sa bopp te bañ a yóbbee boppam coono boo xam ne mën na ko jural lool wallaahu ma faq na sawaab jërëjëf sëriñ bi kii moom dafa laaj mu ne koo xam ne dafa tooñ nit waaye rus naa jàkkaarloog moom ne ko dama laa tooñ xeet tooñ sàggam mu ne ndax kon bu lu kori jotee wala lu mel ni tabaski jot mën naa profité ci loolu ne ko baal ma àq te du jar mu di ko leeral tooñ ko mu ko tooñ
waaw seen Cheikh de loolu aada ju rafet bi ñu def la bu mel ne su kori wala tabaski ñëwee ñuy baalante àq bu rafet la ak di di ñandikoonte di jéggulante loolu mu baax na loolu waaye nag li cay am solo mooy yow lu koy def nga yéene ko ki ngay baal àq ngay def yéene ne ak àq dama la amee daal maa ngi yéene nga baal ma ko loolu moo tax bu am njëriñ waaye daanaka ni ñu koy defee nii da nga xam daanaka day nekk lu routine loo xam dañ koo tax moom waaye yow nga ko def doo doo ko yëg daanaka sax boobu loolu amul benn jeexital wala am jeexital dëgg dëgg daal baal baal ma àq bi nga koy wax mu nekk lu yéene soxal te fas yéene àq da nga ko amee loolu doo doo ko defati boo ko defee mën na laa àq di mën laa wàcc bu bàyyi xel nag ne àq nga amal sa borom jullit day ñaari àq àq joo xam ne alal joo ko jëlaloon la wala muy àq joo xam ne ni ci jaral nga ko nga yàqoon bu fekkee alal joo jël la moom jéggalu buy jéggalu dañ ciy boole joxaale ko ak delloo ko alal delloo ko alal ji bu fekkee yàlla dogal moom nekkatu fi sax te nga bëgg a tuub bëgg a jéggalu doonte gis nga gisul ay gisul dara faaw nga delloo alal ja nga jëloo nga delloo ko ne koy donn boole ko tuub na jéggalu suñu borom bu fekkee da ngaa yàqoon dara nag mu ngi nii mu laaj nga xam ne xëy na ruus na ko jàkkaarloo moom ne ko dama laa xasoon wala dama laa jëwoon wala dama laa waxoon naagam naagam ndax bu ko waxee loola mën naa am yeneen ci lom juddoo ci kon ulama yu bare bare dañu wax ne na na ko wax ne jëkkal ma rek ba noppi nag yéene ko tey moom ci boppam muy muy jëkkalu kookee ba noppi nag boole ci ak lépp lu mu yàqoon def barab bu dee mu yàq fa garab rek bu mën a delluwaat defar garab mu def ko bu dee su mel ne jamono ji ñu toll nga xam ne ci réseaux sociaux yooyu lañu bari jaar bi yàq der nit ñi waaye jaar bi yàq der nit ba yàlla xëy na dafa la toog ak bëgg a tuub da ngay delluwaat ci fa nga site ba nga demoon wala ci réseau ba nga demoon yàqoon fa garab nga waxaat ko wax ci rafet jëm ci kookee mel ne ko xam wet la nga waxoon su defee day mel ne kon moom bu xamutoon ne wax masul waxoon ñaaw ñaaw it wax ju rafet ji mu dégg nga waxal ko ko rek mën naa tax xolam tax xolam sedd ba mu jéggalu ko sëriñ bi radiyallahu taala anhu dénk nañu ci ci jël xolu na fi ay abyaat yu ñu ci indi yoo xam ne dañuy soññ ci ñu moytandiku tooñ tey buñ tooñee nit ñu fexe ba tuub ci anam yooyu mooy bu dee alal bi ko abal ñu delloo ko bu dee dara doon yàqoon ñu ñu ci sàkk foon di bët moom la ma wax wax ne fal yaru dil amwaala lil arbaabi in wujudu dahra bila tiyaabi wa yastaxillu kulla abdin akala bi xiibatin aw xasfin aw sabin jala in kaana xaadiran wa amma in fuqid fal yuksiran xayran laxalloo yajid cheyan yu addi xaqa kullihim bihi mustaxfiran wala yajid rabba afa rabbihi sëriñ bi dafa wax ne alal yi bu fekkee da ngay tuub bëgg a delluwaat sa borom bëgg a jéggalu àq yoo defoon sa moroomam jaam na nga ko delloo alal ja bu fekkee ngi dund fekkee dundu tam nga delloo ko ña koy doon ay doomam wala ay sëtam wala ay soxnaam wala mbokkam yu ko jege daal bu fekkoon da nga yàq deram ci jëw ko wala nga xasoon ko xas mu xas mooy tuumaal nit ci wàllu mooy yàlla diggante góor ak jigéen wala nga sàpp ko mooy ŋàññi ko ne genn xase façon ŋàññi loolu ci mën a doon kon dangay dem ba ci moom nga jéggalu ko jëf joojee li ñu waxoon léegi fekke boo jàkkaarloo moom jaar ci jëf ji wax jan ko waxoon mën naa am seen diggante gën a yàqu kon la fa sës rek mooy nga jéggalu ko ba noppi nag yéene ko seen ko bañ a waxati tey fas yéene ak ab jaram foo jaaroon yàq ab jaram nag nga jaarata setal ko boo defee noonu rek ba noppi nag yaakaar jéggalu suñu borom kon suñu borom mën na laa jéggal waaye ñu bàyyi xam ne boo wéyalee àq bi tuuboo ko tuub wér ba àllaaxira ni ko sëriñ bi waxee ci al jawharu nafiis mooy andi iflaas mooy fallas nit ki day def ay jaamu yàlla yu bare bari buñ demee ba àllaaxira mu jàpp ne am nay jaamu yàlla yu bari waaye fekk yàq na gën ay nit te tuub jéggaluwu leen woon ba ba jéggal ko ko kon àllaaxira moom jëf jëng yóbbu rek nga fay fekk dafay sës kon mooy jëf yu baax yi mu defoon ci lañ jël si ci fay ñooña mu tooñoon mën naa am ba dem ba jeexal sàkk na loolu dese dara ñu nuróole ko commerçant boo xam naa nekkoon ci àddina si di yaxantu bari maa ko gis loolu waaye bari ba ba nga xam ne nii dañoo xëy xëy siisit ko nangu ko alal yëpp dese dara sëriñ bi kooku la nuróole ki nga xam ne doon toon ci àddina te tuubu ko ba faatu yu baax yi mu daan def moom lañ fay ñooña mu doon tooñ day mujj nekk ko fàllas boo xam ne nag yàlla nañ yàlla sig fàllas ngeen góorgóorlu ba mu bañ leen am wallaahu muwaffiq lis-sawaab
jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne koo xam ne dafa dugg ci jàkk fekk ñuy nodd ndax day julli ñaar rakk yi ñu nuyoo jàkk ji wala day xaar ba nodd gi daal.
waaw sëriñ sax day day ñaari sunna yu daje ndax bu ñuy nodd dañoo sunnaat nga ànd ak ki nodd di ko am baat yi di wax. ba mu ñaari saxaaba yi ñu jëkk yu màgg bu yëkkatee wax sa kàddoon nag da door a bàyyi ba am dugal kon ginnaaw dugg ci jumaa joon jàkk ci fekk ñu noddu sunna boobu soo xam ne su taxaw la woon waaw lu koy def kon ànd ak noddukat bi di baax baax yi ba ba noddu gi jàng ba àgg daanu mu def ñaan bi ñu war a sësale su ko defee balaa toog mu def taxiyatu masjid ndax moom benn sunna lu beer boo xam ne nii sunna mu akkat la mooy mu def ko door a toog nag bu fekkee waxtu bu ci jumaa ji wala jàkk ji waxtu la woo xam ne cinq heures naa fi bu dee waxtu yu tuuti laaj la nag muy lu mel ne waxtu yu toll nii wala bu yëngu ñu gis waxtu yi wala bu ñu sëlmee suba ba bët di set waxtu yi bu ñu jullee ci biir jàkk ji wala jumaa itam da ngay toog wala su def taxay bu masjid waaye fekkee waxtu bu dugg jumaa ji fekkee ñu noddu daal noddu noddu timis yenn waxtu yi la kon di dëppoo jëfandikoo ñaari sunna yëpp mooy mu ànd ak noddukat bi di baax a baax yëpp bu nodd gi daal ko def ñaari rakkay tahiyatul masjid door toog nga xam ne farata gi wala fekkee daa bëggee naafile yenn naan mu naafile ko ba julli farata gi farata gi ñëw mu taxawal ko bàyyi xam ne bu xasee taxawal julli farata kenn si nit naafile waaw nga xam ne pare taxaw ñu faat rek naa fi bu mu defee ko tàmbalee woo ko doo ko doo ko te fay taxaw fekk ne gis naa fi la da nga koy àggale ñaar rakkaat daal seen mën fekk climat ji ci julli ga wallaahu moo xam ne sawab
kii moom day laaj mu ne sallallahu alayhi wa sallama lan lay teg
waaw sëriñ Cheikh de loolu ci xeeti julli ci yonte bi ci la bokk façon Cheikh tëggin yi nga xam ne bi ñu def yonte bi tëggin boobu ci la bokk muy tëggin bu gàtt loo xam ne xam naa xëy na def gàtt te yomb tudd moo tax ñu bari di ko jëfandikoo bu fekkee julli bi ci wolof lay laaj xam naa ñu bari yaakaar naa xam nañ ko ndax dañ koy gis dafa bari borom xam-xam yaa dañu wax ne julli gi suñu borom bi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy tàgg bi koy tàgg ci kanam malaaka yi loolu lañ jublu ci julli suñu borom ci yonente bi saa salaam su fekkee malaaka yi nag ñu ngi julli ci yonente bi saa salaam mooy di ko ñaanal di ko màggal kon daal buñ ko fiir ci wàllu buñ ko firee nga xam ne fan fi téere yi mooy sallallahu alayhi wa sallam allahu alayhi wa sallam loolu bu wóolu bu firee loolu waaye daal tëggee tëggee la ci xeeti julli ci yonente bi saa salaam te yonente bi dafa waxoon ne saa yu ngeen déggee sama tur bi tudd ko rek da ngeen julli ci man door jàpp kon xëy na borom xam-xam loo tax na di si xam ne li nga xam ne xaw naa gàtt te yomb a xam xam ne saa yoo tuddee tur yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ ko mën a julli ci moom ci anam gi wallaahu ma sax si waat
mbokk mi day laaj mu ne laaye gi sunu borom wax ne wa ankixu l ayaama minkum wa saalixiina min ibaadikum wa imaa'ikum ba laaye ji jeex mu ne loolu lu ci sunu borom jubloo wax
waaw sëriñ Cheikh de loolu mooy njëlbeen bu aaye fanweer ak ñaar sootu nuur ni nga ko waxee léegi wa an tublu ayaama minkum as-saalihiina min ibaadikum wa imaaikum yakunu fuqaraa yughnihim allah min fadlihi wallahu waasi'un aliim borom xam-xam yi tafsir na ko firee mooy na ngeen takkal soxna seen surga yi nga xam ne nii dañoo amul soxna moo xam ko loolu jigéen ak al ayaama ci loxo arabiya jam la maanaam jam la ñoo xam ne baat bi teg leen mbooloo benn bi mooy al ayimu al ayimu mooy benn bi boo xam ne nag waaye ku ci am ab surga te mu toll ci wàllu takk soxla na nga ko jàppale ba mu takk soxla fekkee day surga bu jigéen tam nekk ci biir njaboot te mata am borom kër nga wutal borom kër loolu borom xam noonu lañ firee aaya bi tekk nag wa saali ala min ibaadikum ñi nga xam ne tam yéen leen yilif dañ doon bu baax bu yiwee xam ne seeni moomeel lañ nekk jamono yi moomeel jàmm ñooñu dem ku ci mata am soxna na nga leen jàppale bañ takk soxna ndax loolu dañ leen gën a dimbali fi ñu gën a mën a téye seen bopp borom xam ne nag seetlu ne suñu borom tëjee aay bi mu yoo xam ne yëkkunu fuqaraa yoo xam ne yi mu laaw bi mag yi ñu balaloo ci ne ndekee koo xam ne da ngay jóg di takk soxna te def ko rek ngir bëgg a fegal sa bopp suñu borom dana la ubbi di wësal te it mu sukkandikoo ci hadis wér boo xam ne nii yonent bi saa sallam moo waxoon ne ñett ñi ñoo xam ne suñu borom gàtt na leen gàddul na leen dimbale leen mu tudd ca an naakihu yuridul afaafa koo xam day takk soxna te la ko xirtal ci takk soxna si rek mooy bëgg mën a téye boppam ba ba du juyoo ndigali suñu borom yi nee na ku def loolu yàlla moo lay may am koom ubbi la bunti wërsëg boole woon na ci dem koo xam ne day day jot mooy lu jamono yi jaam di xew koo xam ne daa bëgg a libéré sa bopp tàmbali jotul sa njàngal ci ki la yilif ne ko dama daa bëgg a jox nangam ci alal nga goreel ma nee na jaam bu def loolu tam suñu borom da ko moo koy dimbalee boppam ba mën a àggale engagement boobu mu jël kële ko ko ñetteeloon mooy koo xam ne day xale ci yoon yàlla di jihaat kooku tam suñu borom moo koy ubbi bunti xéewal kon daal sëriñ Cheikh aay boobu daal liñ ci mën a déggee mooy ku yor ak njaboot nga taxaw leen bu dee ay góor bañ am soxla bu dee ay jigéen nga taxaw leen bañ am borom kër loolu luñ santaane li ci islam luñ santaane ci alquran la wallaahu muwaffiq li sawaab
mbokk mi day laaj mu ne lan mooy atte koo xam ne dafa sëlmal lu jiitu ilmaan wala mu sëlmandoo ak moom waaye nag loolu tëyu da ko def njumte rek
waaw sëriñ Cheikh de maamu mooy ku topp ci ilimaan dañ ko soppi mu topp ci ilimaan ci lépp mu bañ jiitu ilimaan ci dara lu muy def lu nekk rek la bàyyi ba ilimaan def ko mu doon koo def du ko defandoo moom tam ci nekk daal day bàyyi ba ilimaan def ko mu doon ko waaye du ko jiitu du ko defandoo moom bu fekkee am na sax fu mu koy defee muy jiitu ilimaan yi ci benn day yàqu mooy ñaari pomp yi muy kàbbaru àll boo ko njëkk di def sa ilimaan rek sa julli baaxul moo tax ñuy julli ci mbooloo yi dañ bàyyi xel loolu di bàyyi xel ba dégg ilimaan ci kàbbar ñu door kàbbar waaw boo ko njëkkee kàbbar rek sa julli baaxul moom laa julli baaxal fekk yàq na sa julli yowoo ko ba tey sëlmal bi mu daal tam fekkee gi na bu ko tayoon bu ko tayoon moom julli gi day yàqu ndax boo jëlee sa ilimaan njëkk ko sëlmal te tay ko sa julli yàqu na waaye nag ni mu laaj nga xam ne xataar la laaj boobu nañ ko boo demee ci muxtasar da caa wax ne wa mutaabaatun fi ixraami wa salaami fal musaawaatu wa in shakka fi maamuuni mubtilatun mooy dañoo sàtt ci maamu mu topp ci ilimaan yi ci lépp ci armal bi ak sëlmal bi mu bañ koo njëkk armal te it bañ koo njëkk sëlmal fekkee da ko def tey ko ak jullit yàqu na waaye bu tekkee nag wa amma in saliman ba sallama al maamuum qabla al imaami xataan fa yusallimu marratan uxra ba'da salaami al imaam wala shay'a alayhi wa in lam yusallim ba'dahu wa taala aw xaraja min al masjidi batalat salaatuhu mu ne nag bu fekkee daa njëkk sëlmal imaam ci njuumte kon day delluwaat ci julli gi mel ne daa ju xam ne lu juum la na continué waat taxayaam ba imaam sëlmal mu doon sëlmal boobaa dara lu ko wax sëlmal boobu mu daare rek yàqu julli gi ginnaaw tey ko léegi nag fekkee daa sëlmalaat yam ci njëkk def noonu rek te bi ilmaan sëlmalee delawul sëlmalaat kon dañuy xool fekkee yàgg na lool mu door a sëlmal kon julli ga du baax day yàqu fekkee jëm na ci jumaa wala jàkka jàkka ji tam door a sëlmal lu ci nekk day tax bi leen yàqu kon daal fi julli gi baaxee mooy mu bàyyi ba ilmaan sëlmal mu sëlmalaat moom ci bopp benn sëlmu boppam su dee tamit koo yéex a def boobaa am julli gën a lu ci nekk yàlla dogal fekkee ne ci juumoon fekkee ne ko tayam ni ñu koy xamal lay moom julleem da yàqu faaw day armalaat tabloon julli bi wallaahu muwaffiq lis-sawaab
jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne koo xam ni dafa nekk ci bëccëgu weeru koor di saraxandiku far mu am lu jàll ci biiram ndox mi jàll ci biiram mu ne lan mooy àtteem koor boobu
waaw dañ ci wax li ëpp ci gën a lëng ci wax yi fuqahaa yi mooy bu fekkee ci daraja yi sàkk rek la sikk sàkk rek la toll loola moom koor ga du yàqu bu ko wóorul nag boobaa mu koor nga yàqu wóorul am lu jàll ci biiram moom boobaa koor gi da yàqu loolu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne nañ mooy tëndiku di baala xaal ci biir sarax na ko ci te woor koo waree sarax na ko wala nga galax na ko dañ ci ànd ak daal bañ a bañ ci ëppal ba muy jàll ndax bu jàllee rek ba yàgg yegg si biir mën naa yàq sa koor waaw da ngay fay bis boobu moo tax mu ne woon wa baalax fil istinsaaqi illaa an takuuna saayiman boo wooree mu nga bëgg ba sarax na nga jël ndox mu yem rek dugal ko suba kan te bañ koo xëcc xëcc bu baax ba muy jàll si biir ndax boo ko defee rek da nga yàq sa koor te boobaa faaw fay da lay war wallaahu muwaffiq lis-sawaab
mbokk mi day laaj mu ne muxtaaru julli yi ak seeni daruur ndax mën nañ koo limité ci heure yi nga xam ne moom la ñu xam ci ci heure locale ñu mën a wax ne muxtaar tisbaar mi ngi tàmbalee ci heure sàngam ba heure sàngam ndax loolu mën naa nekk
waaw sëriñ si rek fekk daa jublu ne waxtu julli yi ñu def ko ci montar yi nga xam ne bu heure heure sàngam jotee nga xam ne waxtu bi jot na loolu kay lu ma nekk la ndax borom xam-xam yi sax def nañ ko ci réew yu bare bare bu dee fii ñu nekk borom xam-xam yu bare def nañ ko te Serigne Mbacke Bousso radiyallahu taala an ci ci jiitu ci liggéey ci wér googu ci la bokk taalif na téere boo xam ne ñu ko tuddee waaqitu salaat waaqitu salaat fii taqrib mu waaqitu salaat nga xam ne ñu ko teg ci gëstu yu mel noonu gëstu ba xam ci waxtu wi tàmbalee mu limité ko ci montar yi loolu kon lu dagan la loo xam ne dimbali jullit yi sax seen mbirum jullit seen mbirum diine ndax xëy na dañuy jàngalee waxtu mu xaar fi muy tàmbalee ak fa muy yàgg ak daroor yi loolu léeg-léeg mu defee xam rawatina bu fekkee dafa jant bi dafa génn moo xam ne bari si jant bi daa jot ci keppaa ci takk neer dañ koy takk mu day soo xam day taw wala mu niis boobaa mën naa am doo mën a xam waxtu bi fekk ci loolu nga sukkandiku moo tax ku mel ne Serigne Mbacke radiyallahu anhu defoon liggéey yu mel noonu nga xam ne nii mën nga cee xam heure yu mel nii lu ngay dal ci keppaat yu mel noonu moom nag bu nga defee da ko defoon ci li wax ak tawxiq mahal bi mooy temps local bi nga xam ne du mi di mi di ñu jot fii bokkut ak temps bi jëf ci jëfandikoo ci rajo yi ak bu ñu wax dox ci crédit mooy waxtu yoo xam ne moom moom moom lañ tënk ci crise CMT waxtu woowu moom moom ñu bari cat moom la ñu jëfandikoo téere bi mu taalifoon nag moom da ko defoon ci taw xib na xat bi nga xam ne midi jot ci téere boobu daal mooy midi dëgg dëgg ci Sénégal waaye dana fekk midi verse ci taw xib Greenwich ay borom xam-xam nag ñëw nañ ginnaawam yoo xam ne liggéey nañ ci liggéey bu dee su ko def téere boobu ba méngale taw xib na xat bi mooy maanaam local bi ak Greenwich bi ñu gën a xam ku mel ne Serigne Thierno bi nga xam ne nekkoon na xarit Sëñ Mbàkke bi soo liggéeyoon na ci liggéey ba am solo ba fexewoon ba waxtu yi Greenwich mu dëppale ko waxtu yooyu Serigne Modou Mokhtar moom suñu bi tam doon jàngalekat mag Sëñ Mbàkke doon jàngalekat mag moom liggéeyoon na ci liggéey bu rëy boo xam ne wax nañu ci ndigalu suñu Sëriñ Sëriñ Saliou Soxna si la ko defe woon al imam Cheikh Mamadou Fadil ibn Cheikh Abdoul Xaadir moom yaakaar naa ñu bari seen liggéey bi liggéey sax boo xoolee fii si waaye sax jàkk ngir fi ay tableau yoo xam ne moo ko liggéey te ñu ngi ko sukkandiku ci téere boobu méngale waxtu yi ci nekk ak tawxitu Greenwich ba nga xam ne nii booy resemontal rek boo xoolee këyit bi di nga daal di xam waxtu yu jot kon Sëriñ Cheikh sukkandiku ci tawxitu tawxitu baxal yi ba xam waxtu loolu moom lu dagan la lu jàppan la jàpp ak jaam yàlla sax loo xam ne lu loo xam proxon yi wax nañ ne mën naa naa nekk léegi nag ñoom ci téere yooyu wala ci tawxit boobu li ñu lay wax rek muy njëlbeen waxtu awalul moxtaar bi fi nga koy xamee fi fi nga ko mën a xamee fi fi moxtaar bi tàmbalee sooy boo xasee xam fi moxtaar bi tàmbalee nag daroo yi mu lay daal yow nga xam daroo yi ci boo demee ba waxta waxtu waa am na fu mu yàgg rek fa moxtaaram kees takkusaan tàmbalee fa la daroo yi fa la daroo yi tàmbalee boo ñëwee ci timis tam moom xam ne ne waxtaan dafa gàtt sopax sàddoo rek moo tax andi wuñ ci daroor yaa léegi waxtaan bi lañ lay wax waxtaanu julli bi fi ñu tàmbalee moom lañ lay wax su ko defee nga xam ko la ca des ci daroor yi rek boo gëstu tuuti di yomb xam boo xasee xam waxtaan bi mu tàmbalee rek pour nga xam daroor yi day yomb kon daal seen seex ci gàttal mën nañ ne loolu jumtukaay bu baax sax boo xam dimbale ci jullit yi ci gën a mën a jëfandikoo seen jàmm leen gën a xam waxtu yi waaye ci waxtu yi donc yeeg jàpp yi sax foofu rek dañ ko sukkandiku ci calcul yooyu lañ ko sukkandiku ba mën ko génne wallaahu muwaffiq sawaab
mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéen su borom këram sàkkoo ci moom mu indil ku lu yàlla tere lu mel ne ki sàngara ndax dagan na ci moom mu lànk mën ko ko indil.
waaw sëriñ Seex dafa war a dafa war a bañ sax daa war a bañ sax ndax lépp lu ko borom këram sant loo xam ne ak mooy yàlla la moom du ko ci topp ndax bari ñu jàng nañ. hadis boobu laa taxante li maxluuqin fi ma'siyatil xaaliq nit moom loo ko topp toppit bu la digalee mooy yàlla suñoo ko ca topp oo ko toppee ak jàpp bàkkaar kon soxna si ko borom kër sàkko ci lu mel noonu nga xam ne mooy yàlla moo xam loolu mu wax la mu ñooloo mi wala gane mooy yàlla bu ma doon rek bu mu ko ci fekk bu mu ko ci topp moom loolu moom moom ci am ci am sañ-sañ ci forcé ko ci suñ ko suñ ko donte nag jigéen moom mu topp borom këram ci lu baax ci njëkk loolu ci li koy dolli tuyaaba la bokk ndax addis yu bari ñëw na ci yoo xam day wane ne jigéen bu toppee borom këram ci loo xam ne yàlla téréwu ko dana ci am tuyaaba di réer yàgg nañ sax wane addis boo xam daa wax ne ida sallatil maratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha xiila laha udxulil janna min ayi abwaabil jannati shi'ti rawaahu tabaraani muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam daa wax ne jigéen bu jullee julli juróom ànd ak maanaam tàmpte yi mu ràndal ma ànd ak moom ci laab ak yi demee noonu woor weer koor wattu bopp téye bopp si ma yàq ñett yooyu bu ko boolee bu ca boolee toog di borom këram rek bu àllaaxira dañ koy tànnloo bu bunti àjjana yi nekk juróom-ñett lu ko ci neex mu duggee kon ñu mën daa gis seen topp borom kër ci jigéen lu am solo la ci moom lu koy doon ay tiyaaba la luy jàppale ak gàccanaam la waaye nag sàtt bi mu sant ko loo xam ne ni yoon terewu ko waaye bu ko yo borom këram santeelu yoon tere tax si bu tas moom waaye nag na bañ loole ba mu sa sàkku leen loo xam ne yoon may na ko mu defal ko bis bu ñu amoon coow ba dem ci attekat yi tam moom moom soxna si mooy mooy am dëgg ci kaw borom kër ba ci ñàkk ñàkk bu ñàkk topp ci loo xam ne yàlla ko tere kon sëriñ si ah kenn du topp nit ci lu yàlla tere wallahu muwaffiq as-sawab
mbokk mi lay laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa takk lu ëpp ñeenti soxna mu ne ak bu faatoo nan lañ koy nan la ñuy séddalee miraasam ci soxna yooyu waa sëriñ Seex de takk neen soxna joroon na leen benn waxtu moom dafa dafa aar ci lislaam ci ci ay ay ayaat yu wér-wér ak hadis yoo xam ne mu ko andi donte soxna sa ko bàyyi sax mu nekk ci idda di iddaku te mu doonoon ñeenteel wala mu amoon ñeenti soxna rek am ci koo ci bàyyi mu ci donte day iddawu sax fekk idda ji jeexul rek suñu takkaat keneen sàkkamtuwaal fukki bàyyi ko ci kenn far kon sëriñ Seex boole ñeen juróomi soxna wala juróom benn lu ko ëpp ci genn bu dafa alaam ci lislaam te dafa naa ñu bari sax xam nañ ko te it aayaat yi ay ay bi ko saxal ci alxuraan mooy fan kiwu maa taabalakum mina nisaa'i masnaa wa sulaasa wa rubaa aaya boobu daa tënk ay soxna ci nga takk ñaar wala ñett wala ñeent waaye ulama wax sunna wal jamaa daal moom ci aay boobu dañ sukkandiku ba ne góor sañte boole ci jenn jamono lu ab ñeent juróomi lu ab lu ab ñeent soxna yoroon ko leen faaw rek bu naree am dafay bàyyi kenn ba kooka iddaw ba idda ji jeex bu bëggee takkaat loolu takkaat te sukkandiku lañ ca benn hadis boo xam ne nii yonent bi saa sallam saxaaba yu bari bi ñëwee di jëblu si di tuub tuub ci lislaam am na ñoo xam ne lu mel noonu dara la mel ñu yor juróom benn ñu yor juróom ñaar ñu yor yor am na ñoo xam ne ñoom ñeent daal am na ci saxaaba boo xam ne bu ñëwee yonent bi def na ko da ngay tànn ci sa ñeenti soxna yi te juróomi soxna yi da nga ciy tànn ñeent te am koo ci bàyyi lu mel ni moom loolu loolu sooy loolu mën a baax saxaaba def loola seet kenn ci soxna yi bàyyi leen tey ñeent ñi des sukkandiku di kon wax ne koo xam ne nga dugg ci lislaam sax te yow loo ko ñeent soxna dañ lay sant nga bàyyi ci kenn des ñeent nga bàyyi ci am ëppoon daal nga bàyyi ci ba des ñeent rawatina bu fekkee daa fekk ci biir lislaam kon booy takk soxna lu mu bari ba mu ëpp ñeent wala boo naree def takkaat keneen ñu ko xawoon léegi nga bàyyi nga bàyyi ci kenn ba mu iddoo ba idda ji jeex te loolu nag loolu ma saral bu xaw ma tey lu tax idda léeg-léeg day mën a yàq suñu sax ni ko xamee idda ci jigéen ay xel yu bari la yoo xam ne mën naa am ka nga bàyyi bu fekkee day iddaw iddaw ji dina la gudd moom kon xëy na bala ngaa war takkaat dina yàgg ndax jigéen mën naa dem ba iddaw lu jege at wala moom lu mel noonu bu xëyee nag kon te idda dina la yàgg daal di gis ne kon lu mat a teyul daal lu mat a setantal daal loo xam ne koy def ne war ngaa gis bu baax a baax ndax la ngay def mu doon lu tege ci sariya lu yoon nangu su defee doom bi ci juddoo tam fekkee moo ko tayoon nga xam ne amul amul ñu benn noosu maanaam benn lënt am ci woon kon doom ji mënu ko am doom doom ji juddoo ci sëy ndax sëy bu dafa suur moo tax juróomeel bi du du soxna fas fekkee kon moom xamoon na ne kii ak juróomeel bi réewéer la mu takk ko lu ci mën a juddoo tam da am benn bu am benn benn effet ci ci sëy bi waaw dafay mën ne koo xam rek mooy ayaasu billaahi mu doon mooy yàlla wallaahu moo sax suwaat
bokk mi day laaj mu ne ndax dagan na yéexee cangaayal janaaba nig ba tisbaar jot te amee janaaba ci guddi gi yéexee ko ba tisbaar jot moo xam ci koor la wala ci dugg koor
waaw sëriñ Seex de lii gën a doon ay teggin gën a rafet umluwaa mooy ku yore janaaba nga gaaw yëkkati ko mooy gaaw sangu janaaba bi dañ ndax nga nekk ci laab xam jullit yi comme toll na ci laab day loo loo njëriñ ci moom loo xam ne nii yonente bi santaane woon lu mu bëggoon la ni mu laaj nag fekkee yàlla dogal janaaba ji nekk ak moom ba ba tey baax tam te bu doon koor moom koor bi teew koor bi baax la xëyee janaaba yàqul koor waaye nag dañ ci mën a dégg ne kon moom xëy na julliwu suba xam nga loolu tam mbir la mu doy waar ñàkk julli ñàkk ñàkk julli suba tam ndax bu bu julli woon ba faaw mu daal ndox dindi janaaba bi da mën a julli suba ginnaaw daa topp ba tisbaar na mu door a sangu day mel ne kon suba ga moom rawal na ko te loolu tam lu ma tam lay doon wax julli suba dafa am waxtu war na caa góorgóorlu ba julli ko ci waxtoom wala bu doon nelaw saa yu jógee rek mu daal di gaaw dem sangu ji dem julli julli suba fay fay suba ga te balaa tisbaar ak mu fekk mu nekk ci laam bu fekkee nag daa ma da war a jàpp ma leen nelaw jàpp ko ba yàlla dogal yëngu ba tisbaar jot door a yeewu boobaa moom bu fekkee nelaw ko yóbbu woon loolu du ci am bàkkaar ndax daa am ñoo xam ne suñu borom day day bindal bàkkaar muy kuy nelaw ak ku juum ak ku fàtte te ñun ñoom kenn doy bindal bàkkaar waaye fekkee moo ko tay daal daa xaw a diib rek ak xaw a sàggan ba tisbaar bi jun door sa bokkoon mën naa am bàkkaar ci ñàkk ñàkk julli suba ci waxtoom bi taw de koor bi dara de koor bi mën naa am da day baax xëy janaa ba yàqu koor wallaahu muwaffiq sawaab jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne dafa faatu ñu denc ko te kenn julliwu ko
waaw sëriñ Cheikh loolu bu dee fiqhul maaliki li ñu ci wax mooy sañ sa ko jullee ci barab dañ koy fekk ci bàmmeel bi jullee ko foofu feeg dem ñu ba jàpp ne jëmm ju sàpp ko ne wala mat am ñu ne feeg matul weer fekkee ba bu dencee nag ak bu ñu yëgee ne julleewu ko mën na weer boobaa moom ajal fës mooy ñaar ko waaye jullee ko moom day daal di faat waaye feeg matagul loolu moom donte kenn la sax mën naa dem taxaw ci barab ba tiim ko jullee ko fa mel ne moom la tiim rek bu dee mbooloo rek dem na ne am dem jullee ko ci barab boobee ndax sax na ci hadis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na soxna soo xam ne nii ci ci ci ansaar la bokkoon ba mu génnee àdduna da koo jullee ci ci ci bàmmeel ba da ko tiim ci bàmmeel bàmmeel bi jullee ko fuqaa yi sukkandiku ci hadis boobu kon ne koo xam ne denc nañ ko yàlla da ko julli ko woon jullee say su ko fekk ci bàmmeelam boobu jullee ko tiim ko jullee ko yëg ma tegul weex wallaahu muwaffiq lis-sawaab
mbokk mi day laaj nee na lan mooy atteb koo xam ne dafa takk jigéen ginnaaw bu mu ko listixaaree ba noppi yàlla dogal nag nee na ñu dem ba ci yàgg ay mbiram xaw a jafe lool bàyyam dem ci ab seetkat seetkat bi ne ko sa doom jiikat bu fekkee fasewul soxna si liggéeyam bi jëm kanam nee na doom ja fase ko waaye ba mu ko fasee tamit taxul nee na melokaanam soppeeku taxul mu jëm kanam daa mel daa gën a dellu ginnaaw nee na mu bëgg a takkaat soxna si nag bàyyi nanguwut ma ne kon nu muy def
waaw seen seex de bàyyi bi dem jëm ci dem ci loolu kooku ñu mën mën a jëm ñu koy wax ab bisaanaka loolu mel noonu loolu am na yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na ne man ataa arrafan fa saalahu an shay'in saddaqahu lam tuqbal lahu salaatun arbaina yawman ñu addis bu gër boo xam ne imaam muslim moo génne nga xam ne ku dem ci ku mel noonu di di def seet yooyu nga laaj ko dara lam la lam la wax nga gëm ko da nga toog ñun man yoo xam ne sa julli dal ba nangu kon bàyyi lu waroon def kenn di ko laaj laaj yu mel noonu li li li li waa borom soxna si nag tokkoon soxna si def moom sunna la mooy istixaara wala ngaa takk soxna nga def istixaara ci boo xam ne sunna jàngale na ko te yonent bi alayhi salaam daa ko jàngal saxaaba yi dañ daan jàngale faatiha loolu la leen daan jàngale istixaara di waxal ne ku ci am soxla ci yéen bala nga caa dugg na nga def istixaara kon li mu njëkk a def moom baax na mooy def istixaara waaye nag ñàkk dëppoo bi mu ne mel ne da ko dëppootu soxna si tax ñuy def ñu mel nii itam ba bàyyi bi di ko xittal ci bàyyi soxna si bàyyi bi kon moo jëm foofu loolu loolu jëfandikoo loolu waaye nag fekkee borom kër bi dégg na waxi baayam ba bàyyi soxna si noonu parce que day daal tàmbi kon seen diggante daal di jeex moom ndax ndax parce que moom ci loxol borom kër bi la nekk saa yu wàccee rek moo xam tax mu wàcc rek moo xam dégul baayam tax mu wàcc wala moo daa xam ba dem ba ba ba ba ba gisal boppam daa war a bàyyi saa yu bàyyi rek passé ma daal lay dox li ma xam nag da ko bëgg a jëlaat ndax xëy na situation soppi ko wut mooy li leen wax léegi rek mooy dafa dafa sukkandikoon gëm yàlla rek bàyyi bopp yàlla kon mën naa am loolu xew waaye ginnaaw teg na ko ci ay caaxaan ba def lim def ba sëy ba jeex bu bëggee takkaat nag du caagin noonu la yombe nag caagin day dem rek ñu daal di koy bayaat ndax na mboccee woon dañ koy xool moom borom kër bi na mu bàyyi woon soxna sa faaw ñu xool ko gëstu ko ba xam ndax da koo bàyyi woon passé mu bàyyi li wala da koo bàyyi woon passé moo xam ne mënatu ko fay ndax passé ngeen ko bari jànge da ci am yoo xam ne bu xasee am rek mënootoo fas tey bi ci loolu jigéen ñi amaat borom kër ci diggante bi ba borom kër ba tàggoog moom mu door mën a jël ci jël ci sikk fekkee nag moom mi bàyyi woon soxna si da ko bàyyi ci anam boobu nga xam ne li ñuy wax passé bu dog la saaku salaas kon soxna su ma dellusiwaat ci moom li fii mayu ñu ko beneen borom kër beneen borom kër ba mu tàggate kooku seq ak moom ba mu tàggate kooku moom ci am bu ma doon nag moo xam kooku da koo bàyyi wala yàlla dogal borom kër bi gën daal la bu idda woo ba iddaam jeex kon dañ ko may may mayaat kii ci mu doxe ak can am kilifa ak wala sàtt say dañëwaat bu fekkee nag na mu ko fase woon ma am na nag sagom ba xam ne fase ay la ko fase woon te mu xam ko loolu jafe xam la loo xam ne man tey la ndax parce que pay li day day loo xam ne nii borom yenn borom xam di wax daan ku ko xamul du ma la defal sa pass ndax day day lu ma tax xam ndax daa bari ay sart yoo xam ne bala nekk asab fin lañ ko cee daje mën nañ jàpp tuuti rek moom mu yéene ko ci xolam ne fase mi benn yoon rek laa ko yéene fekk mosu ko fase fase mu jiitu loola loola ak yeneen sart yi ci am yëpp fekkee am na nga xam ne daal yàlla dogal na moom fase mu mel noonu fase te bëgg ko takkaat kon ñaareel mën naa am fekkee idda ji jeexagul mën na ko fay bu yàlla dogalee idda ji jeexit mën nañ ko ko mayaat ci beneen pas-pas bu yees ak beneen yeneen can bu yees waaye du jar geneen kenn geneen góor di fa doxaat boobaa nag ndigalul waajuram ci demal takk soxna si du ci du ci du ci am benn jeexital ndax góor moom ndigalul waajuram ci takk soxna du ci jax jigéen lañ wax ne maanaam kenn sañu koo maye te bàyyam àndu ci waaye góor moom bu xasee masoor masoor mën naa takk soxna te bàyyam àndu ci gën a rafet nag mooy mu waxtaan ak bàyyam ba déggoo ndax ab waajur tamit bokk ci li islam santaane waaye nag islam joxul waajur ak ñu toll soxlaam bëggee taxoon takk soxna mu tere ko ko ba bu takkee bu baax bu tee bu doom ji déggoon ba bu takkit sëy bu baax la xanaa kay dafa def beneen mooy yàlla mooy mooy ñaari waajur te loolu tam bàkkaar bu rëy rëy mat a moytu la mooy waajur moom it dafa mat a moytu ndax njàngee ci alxuraan fekk na ci laa yu bare bare wa bil waalidayni ihsaan dañuy dégg mooy rafetal jëm ci waajur kon daal li gën mooy nit ki ma waajur ñu teel di waxtaan ci bëree bëri ba juyoo ba jàll seen diggante loolu lépp maanaam ñàkk waxtaan ko andi woon wala ak juyoo rek ba yooyu yàlla ci waaye xëy na bu ñu ko teeloon waxtaane dañ ma seet ni ñu yëkkee mbir mi di dox si fii wallaahu ma faq sawaab jërëjëf sëriñ kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne bi muy xëdd booba ñu ngi nootu noddu suba
waa sëriñ Cheikh de noddu gi daa bokk ci mandarga yi nga xam ne fajar dugg na ndax tënk bi mooy fajar duggee rek donte nodd na te xam xam nga ne fajar xar na xar rek booba am koor bi day tàmbali boo lekkatee koor gi wala nga taxam di xeet du lekk da xadd na moom sunna la soo xam ne sax la te lañ lañ ci li ci yonent bi gën a taam moo ñu yeexe ko taaxiru suhur ñu ko jàng ci tasawuf saxaar daa bokk ci sunnay koor mooy booy xadd nga bàyyi ba waxtu wi des tuuti waxtu wi daa jàpp jot a des tuuti nga door a xadd xadd tam mën naa nekk ci mus dara rek naan ndox wala lekk dara lu mu néew néew boo ko defee nga jëfee jëfandikoo sunna xam ne daal tudd def nga sunna si loolu nag boo koy def dañ ci dañ cee bëgg diggante bi nga koy defar diggante bi fajar bi xare lu mu gàtt gàtt nga mën faa jàng juróom fukki laaya yu alxuraan noonu la ko saxaaba bi daan nag naan loo xam ne maanaam bu ñu masaan bàyyi lekk jàpp maanaam ak fi ñu nodde nodd ko mujj gi daañu fa mën a jàng juróom fukki laaya borom xam ne tamit ñu ko xaymaa ci wàllu minute yi yooyu ñu gis ne kon sole fukki minute moo tax ñaare diggante fi ñu naan jàpp jot fi ñu noddi noddi mujj gi fukki minute lañ toll fukki minute yooyu dañ ko def ngir lémtu ngir lémtu ko waaye dog gi jàpp gi dëgg fi ñu waree mooy bu fajar xaar yi moo xam ci nodd ko xamee moo xam ci benn mandarga ko xam ndax mandarga yi xam ne fajar xaar moom nodd benn la te nodd sax mën naa bañ a mandarga ndax kay nodd fekkee xam ndox dëgg-dëgg mën naa nodd fajar xaar mën naa def ba xalaat xam weesu dama loolu nodd kon nodd gi moom mandarga la ci waaye mandarga mën a gën a wér mooy ñuy jàngale ci téere yi mooy liñ ko xamee ci ci ci asmaan kon kooku ngay laaj sëriñ kooku di laaj sëriñ Seex wax ne maanaam bi waxtu xadd di jot jàpp daa jot moom moom kii fekk wóor na ko ne da ko wóor ne moom bi noddukat bi nodd fekk na fajar xat mën a teew koo lekk kooku moom kooram bu baax kooram day day day day fekkee sax moo tay def loolu jëf-jëf yi da ci boole kafaara ndax weeru koor boo ci dogee tay ko ci lekk wala naan wala boo dangay dangay kafaara kon nag fekkee moo ko tay day kafaara fekkee tayu ko nag moom bis boobu da ko bu koor gi jàllee da koy fayar rek waaye du ci kafaaraante kon daal léem ko ci diggante bi wax ne jàpp jot na ak fi ñu nodd nodd mujj gi lu mat bàyyi xel la ba lu mel noonu bañ a dal kenn ndax war ba noppi ci war bi ci ab sikk sàkk baax na baaxul loolu ñàkk lent moo koy andi wallaahu muwaffiq li sawaab
mbokk mi day laaj mu ne ndax góor dana am bakkaar su fekkee ne soxnaam moo ko sàkku ngir mu ànd ak moom góor ga lànk ndax daa mel ne liñ gën a dégg ñu koy wax mooy su góor sàkkoo soxnaam soxna sa lànk da cee am bakkaar mu ne ko ndax bu fekkee safaan bi la nag jigéen ji moo soxla góor gi góor gi lànk bañ a ànd ak moom ndax góor gi dana ci am bàkkaar
waaw sëñ Cheikh da nit ki ak soxnaam lañ ko sant mooy mu koy jox kër rawatina bu fekkee daa yor ñaari soxna ñett ba ci ñeent kenn ku ne mu jox sa ay ay gën a borom xam-xam yi jàngale mooy mu fekk ko nekk nekk ak moom ci ci wax jamono yi nga xam ne moom moo moo aaye mu nekk ak moom la ñuy fekk nag sàkkuñ ko ci waaye nag bés boobu moom la doon bés boo xam ne moom soxna naa koy moom nii mu laajee nag li borom xarit wax mooy illaa al xasada al idraara biha bu fekkee ñàkk bi ñàkk ànd ak moom moom góor gi da ci bëgg lor jigéen ji ko lor rek tax mu def ko booba am na ci bàkkaar te dañ koy forcé mu ànd ak moom ndax boobaa tooñ na ko foofu soo ko soxna dañ ci gëstu ay gëstu yu bare bare diggante nit keeg soxnaam mu war a def yooyu ku mel ne Ibnu Hazm moom dem na ba ne nit ki bu yoree soxna te amul benn gànt war na saa yu laabee balaa gisaat baax moom wéet wéet ci moom wéet ak moom noonu la ko gisee ndax daa sukkandiku suñu borom ne fa ida tatahharna faatuhunna min haysu amarakumullah bu seeni soxna buñ laabee ba baax ba jeex da ngeen am na ñoom ci leen yàlla sant moom sukkandiku yoo xam ne kon diggante baax bu nekk maanaam bu jigéen ji laabee balaa gis ak baax bu borom kër amul benn gàtt war na ci yàqal moom loolu am yenn borom ko xam yoo xam ne dañuy wax ne muy imam imam ibnu ahmad ibnu hanbal moom daa wax ne daal néew néew bu mu ëpp ñeenti weer ñeenti weer yu ne daal di jànd ak soxnaam mu sukkandiku ci ñuy wax ilaaw ilaaw mooy ngiñoo nit ki bu giñee du ma du laal soxnaam dañ koy may gàpp ñeenti weer bu ñeenti weer yi matee te laal soxna suñu loolu leen tàggat parce que doola am waaye fekk ba tëggul ñeenti weer mën naa nekk soxnaam sukkandiku ci loolu ne kon ne xëy na mën naa toog lu ba ñeenti weer yoo xam ne fekkee soxna su du ci loru mën na caa bañ a ànd moom ku mel ne imaamul xasaali moom mu ngi ko tënk ci ñeenti fan ñeenti fan la ko tënk sukkandiku moom it ci ne comme góor sañ na am ñeenti soxna kon day war a ne kon soxnaam su nekk war naa ñeenti fan yi de mu wéetu moom ala kulli xaal sëriñ sax daal am na diggante ñu teg borom jigéen ak borom ak borom këram wa aashiru wala bil maaruf la ñu am xaal sant mooy nam gën a rafet rek gën a yelle gën a civilisé gën a am sutura loolu la ñuy sant waaye ànd bi dëgg-dëgg sax la ci am solo mooy seen diggante ak dëppoo àll ci ak jubóo waaye bu loolu amee rek yu bare bare xëy na soxna si mën na la koo muñal waaye boo ko bëggee déggee wala nga bëgg koo kii rek mën naa am doom moom sàkku ay droit te boobaa day am ci àq nga jox ko àq ak yooyee wallaahu muwaffiq lis-sawaab.
kii moom day laaj mu ne koo xam ne day julli topp ci imaam joo xam ne dafa xaw a gaaw bi ñu agsee ci toogaay bu njëkk bi di taaya. laataa muy noppi ci taay bi moom imaam bi jóg mu ne ndax kon moom day dagg taay bi rek dama fekk ilimaan bi wala mën naa àggale taayam
waaw suñu sax kooku day day day day fekk ilimaan bi day dagg taayam fekk ilimaan bi ndax ilimaan bi moom gaawaay bi loolu lu sàpp mu ñàkk ko topp ndax ilimaan bi moom boo xasee kabar rek kabaru almal da nga koy topp ci lépp ñu ko waxoon ci laaj ba la weesu woon boo ko jiitoo ci kabaru almal sëlma sax lu yàqu yeneen fonk yi si itam topp ci topp wante la muy def daa gaaw yi lu teel nga ànd ak moom ci gaawaay boobee ndax am na ci yoo xam ne moo la koy gàttal moom ilimaan ji la koy gàttal bari na yoo xam ne nii ilimaan da koy gàttal maam moom bu ñu àndee bokk na ci li mu wax léegi muy taay taay bi bu ko daggee fekk ilimaan tam du tee julleen baax na wax ilimaan bi moo fi gàttal taay bi moo ko ko deful tam moom maam moom mi du yàq julleen wallaahu moo sax si waat.
jërëjëf sëriñ kii moom day laaj. mu ne koo xam ne dañ koo jox benn marchandise ne ko jaayal ma ko ci nangam mu dem jaayee ko lu ëpp loola ndax kon loolee ca tegu ci njëg moom dagal na mu lekk ko wala déet.
waaw sëriñ sax da ko wakil lañ koy wax al wakil mooy koo xam dañ ko wakil ne ko jaayal ma marchandise sàngam kooku dañ ko sant mooy mu tënku ci borom alal jalam ko sant ne ko jaayal ma ko lam ko ne ko prix ba nga ko jox mu tënk ci loolu ñoom nag ñu wax ne borom xam-xam ko xaw wax ne lim soñu daal moo jaayee ko yëstëri boobu ndax boobaa day day day lor borom marchandise bi waaye nag xañ na koo jaayee lu ëpp prix bi ñu ko joxoon moom gisee prix bu boo xam ne moo moo dàq bi borom marchandise bëggoon sañ na ko ci jaayee ndax boobaa njëriñ mooy borom marchandise bi waaw dana mu ci waaye nag li mu laaj bu ko jaayee tam moom ba kii rek la te da ca tege ci bénéfice moom borom marchandise ne ko moom moom moomu ko bu ñëwee wala bu demee ba ba ñëw di ko ràgg kon da koy nag ah marchandise bi kat yow dag ma ne ma jaayee te junni yàlla dogal na gis naa client bu bon ñaari ñaari junni ba far naa ko jaay mi ngi nii moom borom xa- borom alal jëm moom moom xaay ma moom la ci tege ñaari junni ma koy moom xaay na nag man naa ma yëkkati dara jox ko jox xarum bu sant waaye moom suñ jékki rek dagg dagg loolu rek tey ko tey te borom ko wakkiloo naa laa yëngu jox ko ci digal moom laa wax ko sax sa
mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ci koo xam ne day jàng mu bañ a julli ci ba ajuma maanaam fekkee ne heure bii julli ajuma day fekk moom mu nekk ci barab ba muy jàng
waaw sëriñ Cheikh de ngànte ñàkk a julli ajuma lim nañ ko waaye boolewuñ ci loolu mu wax noonu ñu sàkku xam-xam am lu baax la am njariñ waaye nag ak gut ci jox la ngànt nga bañ a julli ajuma ñoom daal liñ wax ci téere borom xam-xam mooy lu mel ne tawat koo xam tawat la bu mënta julli moom ajuma wàcc na ko day julli ci saar ba tey lu mel ne ak tukki daa tax julli te julli ajuma wàcc fekkee daa jóge ci daa dem ci dëkk boo xam ne dëkk fa nekk fa gan sañ naa lay julli ajjuma te julli ci saar waaye nag ñàkk julli ci ajjuma ngir njàng ma rek xam naa loolu nag léeg-léeg mën naa am na ndax université yi ñu doolee gaaw laïcité bi dox ci réew bi tax na lu bare bare ñu ko sëdd islam ak cër waaye jàpp naa ne suñu réew yi am na ci yoo xam ne nit ñi xëy na ñoo xam fekk xam seen i àq seen droit yooyu nga xamoon dëgg dëgg lu bare daañ ko mën a lijjanti seen bopp ndax kenn di jàngal jëpp mën naa am julli loolu sax Sénégal li ñu ko wax ne quatre-vingt-quinze pour cent julli mën naa am keneen di jàngal julli defe naa ne ñoom étudiants yi di jàng ci moom bu ñu naan ko woon ñëpp ne ko dañoo bëgg moom damay julli ci loolu yàgg awru sa dafay moom bu ko bañoon tam ñu ñu gerte ko ba dem julli ci dem boobaa faw day day day day am droit moom defaat ko wala ñu dem ci kilifa yi géer yi yéen jàng jàng bu baax ko boobaa moom mooy toolu ndax ñi sa dàq la xam naa ñu bari dañ koy dañ ci ñàkk mànkoore waaye bu kenn bëgg rot turam nag moom mën naa moom dañ ko defee waaye buñ ci mànkoo ñu yëpp ñaan ko bëgg a julli ji àjjuma daga naa ne faaw may leen ko danañ ko bëgg tam buñu ànd ñu génn dem julli ji du ci ma dara alaa kulli xaal daal bu toogee buñ toogee ba ñu julli ji moom nga xam naa ñu am dakkaar ci loolu ñàkk julli àjjuma tam nag bokk na ci nga xam ne yéen bi en charge daal teg ko akoon na ci wax ne sax sama xarañ ci ajuma ak si ma dénkan ci mu jiite nit ñi ma génn ku ma fekk sa kër nga toog julli jiw te amoo gàtt bala kese la xam ne kon kii di xuppaay bu rëy xuppe na wala xuppoon na ci xuppe bu rëy daal ñàkk julli ajuma daal moom ci ëpp ko amul gàtt lu ma tamaytu la kon ñooñu sëriñ Seex li gën ci ñoom mooy ñu fexe ba emploi temps bi ñu leen di jox ñu bàyyi ci xel waxtu ajuma bi loolu moom wax dëgg yàlla suñu réew mi dañ ko war a bàyyi xel baax a baax lislaam daal joxal ko gëdd xam ne am na ci yoo xam ne kenn boo ko caaxaan ñi nga xam ne ñoo jiitu jàngukaay yi liggéeyukaay yi ñu bàyyi xel waxtu àjjuma bu ñëwatee ñu may seen am droit seen étudiant seen élève ñu may leen waxtu mën a dugg ci dellusiwaat yàq dara ci liggéey bi ci day tax mu gën a barkeel tey day tax seen diggante seen borom seen xel gën caa dal xam ko sàkk xam-xam ñëpp war a jàmm yàlla waaye kenn warul caaram ndax wattaqullaaha ya'allamkum laa man nit ku bëggee am xam day day ragal yàlla di ko jaamu mooy tax suñu borom def xam-xam sa xel wallaahu muwaffiq as-sawab
laaj bi ci topp nee na koo xam ne dafa fekk imaam ci rakka bu mujj bi mu ne kooku bu imaam bi sëlmalee nan lay mottali julleem
waaw sëriñ Seex de bu fekkee daa fekk ilmaan ci rakka bu mujj bi te yàlla dogal na moom bi ilmaan bi rukkoo fexe na ba sëgg jàpp ci wóoba bi ilmaan doon si bi kon rakka boobu da koy limaale moom ci julli gën a bokk bu ilimaan sërmalee day fay la ko faatoon rek fekk julli ñeenti rakka la ñetti rakka ko ca raw fekk julli ñetti rakka la ko timis ñaar yàlla ñaaral lay fay bu dee julli suba mu fay benn ba bu fekkee ne dañu fekk ilimaan bi dina ko te yàlla dogal bi muy sëgg bi laata jàpp ay woom ilimaan bi siggi na ba tàmbale sujjóot bu tee day koy topp rek bu koy day day koy topp ànd ak moom ca la muy def ba mu sëlmal bu sëlmalee nag mu jóg julli mel na kuy door a tàmbale julleem xanaa mu bàyyi xel ne du du kàbbar kàbbar am na moom du ko defaat ndax bi dugg julli gi defoon na ko kàbbar am na la du defaat waaye wala la def ci julli gi da ko defaat bi tey julli ñeenti rakka am julli ñeenti rakka yu ma sëkk su ma waroon taaye mu taaye fa su ma waroon na su ma waroon na bu def ko bu dee julli ñeenti rakka doon bu dee julli ñaari rakka doon sëriñ bi sax wax na ko ci aljohor na fi wax ne waxul li man adraka fi tashahudi imaamuhu xum wa salaataka tëdi boo fekkee sa ilimaan di taaya àndal ak moom ci taaya ji waaye nag bu sëlmalee jógal àggale julli gi mel na da ngay door a tàmbali yow mel na foofa nga fekk ilimaan bi wallaahu muwaffiq sawaab
mbokk mi day laaj mu ne lan ngay laajee koo xam ne léeg-léeg xelam day xalaat ci yàlla ci jëm yàlla bu ci xalaat xalaat yu ñaaw wala léeg-léeg xelam day xalaat ci nit ñi xalaat yu ñaaw kooku lu koy laajee.
waaw sëriñ si ne xalaat diggante sa borom moom ci baax mooy sax suñu borom li ñu sant mooy tafakkaru fi wax lu xaat di baax fi ci fii daal yi na ngeen di xalaat ci sama mbindeef yi ci bañ a xalaat sama jëmm ji noonu suñu borom bi sell sell boo xam ne xel àgg ci yombul waaye boo dee xalaat ci mbindaafoon yi mën ngaa dem ba ba séef gën a yokk kon kooku ne musul seytaane xam ne pexe seytaane moo koy jax jaxee ba muy def loolu mu koy musul fu mu toll di ko jéem génne ci xelam mbokki jullit yi bu nga rafet jot jot ci ñoom day ñaaw jot ci ñoom ndax xalaat xalaat yu ñaaw ci mbokkam jullit xeeti ñaaw ndot la ñaaw ndot xam ngeen ne lislaam inna ba'da zanni ismun lenn ci ñaaw ndot yi day indi bàkkaar kon daal sëriñ si kooku li ko war mooy digganteem borom mu koy tuub di sellal musul seytaane saa yu otee lu mel noonu otee ci xelam mu gaaw génn ci xelam te musul seytaane diggante nit ñi tam mu rafetal jot ci nit ñi am ci ñoom yaakaar day boo defee mën naa mën ci yooyu laa ma sax di soo jërëjëf sëriñ bi kii dee laaj mu ne koo xam ne dafa ñëw ci suba ci jàkka ji ne ñaar rakka yi muy nuyoo jàkka ji ndax dana taxaw taxawaayu ñaar rakka yi fajar yi waaw sëriñ Saada ñaari rakkaay yi ñu jàkka mën naa wuutu ñaar rakkaay fajar booba ñaar rakkaay fajar lay def mu wuutu ñaar rakkaay julli ju ñu ñu ñu taxit mas maanaam nuyu jàkka ji fekkee daal ñu dañu noonu suba ba noppi mu ñëw ci jumaa ji wala jàkka ji fekk taxawale ko biir suba bi kon te julliwul woon ñaar rakkaay yooyu ci nit ci këram kon mën naa def ñaar rakkaay yooyu mu wuutu taxit masjid bi bu ko neexee tam mu toog ba def taxit masjid foofu moom fekkee defoon na ko ci këram loolu ñëw ci jumaa ji wala jàkka ji te fekk taxawale ko julli farata ji kon mën naa toog rek xaar ba neggandiku bañ taxawal julli farata bi mu ànd ak imaam julli wallaahu muwaffiq bis-sawaab
kii moom day laaj mu ne koo xam ne day jàng xam-xam médecine ndax may nañ ko mu jël leen mala yi fekk mu ngi dund sax mu dagg ci mu ab cër wala muy def lu mel lu mel ni autopsie daal pour di jëfandikoo lam jàng
waaw sëriñ sax day autopsie boobu mu wax li ci borom xam-xam yi wax rawatina ku ñu wax alwaxla soye daal benn dégg di ko alfaqul islam waa dina tuuru ndaa wax dagan na xayawaan ñu ci def autopsie noonu ngir jàng ñu jàng bi si moom nañ koy def dañ ko ayoo baax a baax loolu nee na daal néew ci fekkee dañ caa jubloo jàng xam-xam xam naa liñ ci wax rek moom waxu xayul bi moo ci xaw a jafe tuuti fekk muy dund muy dagg ay cëram daal loolu moom buñ méngalee hadis bi yonente bi waxoon ne inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in fa ida qataltum fa ahsinu al qitla wa ida zabahtum fa ahsinu zabha wa li yuhidda ahadukum sufratahu wa li yurih tabiatahu hadis boobu lañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant sant mooy lu ñuy def lu ñu rafetal ko def ñuy def rek nañ ko def ci anam gën a rafet donte dañuy rend sax nañu rend ci anam gu rafet boo demoon ba rey ak sax nga rey ci anam gu rafet bokk na ci rayee rendin wu rafet mooy jumtukaay bi ngay rey nga ñawal ko nga ñawal ko ba mu ñëw nga xam ne li ngay ren du yàgg kon day mel ne ni mu waxee fekkee daf cee jublu xaywaan bi dund ngay dagg ci moom loolu moom xeeti xeeti temps la bokk te loolu dañ ko terewoon bu fekkee daal mën nañoo ren di xaywaan ba mu dee ci loolu koo tasriyeex maanaam fees ko seet la ci bëgg gëstu moom loolu moom dara new ci moom sax àgg na ci wax ne doomu aadama sax mën na ko autopsie bu fekkee daa am ne gëstu ci moom ban maladie moo ko yóbbu moo tax faatu wala ma dara am ak tooñ boo xam daa am te am luñ ko ci taqal te buñ defu noonu duñ xam ba xam boog ñu koy def ko du mel noonu daga dana dagan kon ñu tas yax ju setul insaan mooy doomu aadama ñu defa ko autopsie autopsie bu dee si xayawaan rek nag moom xam naa li ci am jafe-jafe rek mooy muy dund ngay def nga koy def noonu di dagg ci yi di xool fekk muy dund loolu moom day mel ne buñ méngalee xadis yi ak maqaasatu saako daal du war a mën a nekk kon la gën a rafet mooy ñu rendee ko noppi su ko defee nag lañ soxla ci moom ci gëstu ji dugg sa gëstu wallaahu moo sax sawaab
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci nit bu jullee naafila ànd ak imaam ba àgg ci safaar mu julli safaar ba noppi bu witar ji mu bàyyi ko ba ca këram door ko faa julli wax dëgg nag sëriñ Cheikh muy lu mel ne tarawih yi ñuy def ilimaan yi ñoom ñaar dañuy def tarawih dem ba wiitar door a bàyyi wiitar boobu nu muy benn kàbbeer boobu bu fekkee daa ànd ak ilimaan bi def ko ci fañ doon jullee kon moom dootu ko baax ndax dafa am addis bu ñëw boo xam ñaari addis yoo xam ne dañuy mel lu xaw a juyoo benn bi dafa ne laa witraana fii lay lëkkee benn ba ne ijaalu aaxira saatu ko al witra maanaam guddi mu ne saatu ko witar ñaari yoon genn guddi beneen addis wax ne bu ngeen di julli na ngeen def witar mu mujj seen julli xam nga loolu nag boo ko andi day xaw a andi tuuti juyoo ndax day mel ne kon suñu boo xasee witar kon doo ko mën a baamuwaat moo tax borom xam-xam wax ne kooku xam daanaka ilimaan bi def trawish yi muy naafile yi ba ilimaan bi tarma nag nga buy tar bi kon bu delloo këram bu bëggee julli geneen julli mën na ko julli moom am na sañ-sañ julli yeneen naafile bëgg a julli ci këram waaye nag day bàyyi wiitar bi du ko defaat moom wiitar rek la baaxul ndax moom kenn du ci bitti ñaar yoon am na tam ñu ne li gën daal mooy mu bàyyi bu ilimaan bi wiitar moom mu bàyyi ilimaan wiitar ak ñu bëgg ànd mu ànd moom te moom mu bàyyi rek fekkee daa bëgg julli yeneen julli ci këram bu demee ba ak këram nag julli yi war a julli yëpp def mii dara mu mujj si ak julleem boobaa kenn ku ne daal ku ci ku ci def lu ne am na foofu sukkandiku ci addis kon daal li ñuy ci tënk-tënk bi daal moom mooy fekkee mi toor na ci jumaa ji wala jàkka ji door a dem këram moom buy naat sañ naa naat daal naafile ko ko neex waaye nag bu mu baam faan wiitar ka fekkee wiitar woon nag ànd ak ilimaan bi nga xam ne ilimaan bi wiitar daa toogal moom di def leneen kon bu demee ba këram ba julli ba noppi la mu bëgg a julli ci xeet naafile mu tëje ko wiitar fekkee nati naa bëgg naa bi tam mu daal di wiitar moom ndax wiitar moom daa dekk sunna mu akkada fekkee def ko daal ak ilimaan ba delloo gën na ko def kon walla ma fax sowal
kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci ku woor su dee xët yi dégg ñu ne jàpp jot na mu àggalee lam doon lekk wala lam doon naan wala bu déggee ñu ne jàpp jot na dafa war a daal di yemale ko la muy lekk wala la muy naan
waaw sëñ bi loolu nga aju ci moom ak wóola ko doon ndax bu ko wóolee ba def ci xar na moom sëñ bi sa lekk sëñ sa naan loolu doon dafa daa lekk caas ko tayee def ko rek koor gi du baax korom day daal di day daal di yàqu ci ci loolu mu def waaye nag diñ ko waxoon ci laaj bi weesu woon noddu geeg jàpp leen ak yëpp xeeti xeeti màggal bi ñu xamee waxtu rek waaye fekkee mën na ko xam ci ah xanaa xamul boppam moom ci loolu la sukkandiku waaye nag dégg ñuy noddu te moom xamul waxtu bi kon la war ci moom mooy mu daal di bàyyi la doon def lépp ci xeeti jëfandiku yooyu ndax koram lañ yàqu fekkee dëgër na bopp lekk wala mu naan te dégg noddu gi noddu guddi gi boobaa kooram day daal yàqu wallaahu moo sax sool
mbokk mi dee laaj mu ne ndax war na ci ab jullit mu tënku ci benn ngir su demee ba àgg ci masala boo xam ne gisul lu ci am ngërëm wax waaye gis na lu ci meneen ngir wax mu jëfandikoo la ci meneen ngir wax te fekk ne moom mi ngi ci beneen ngir
waaw sëñ sa tënku di ngir di nekkut lu mën a yàq waaye nag amatu naas mooy ñi nga xam ne xëy na sureeguñ ci wàllu faq lool lool liñ leen dénk mooy ñu tënk ci ci ngir ndax ngir ñi ko tëral moom xam nañu àtte yi ci na xam ne ñoom war demee ba boo ci tënkoo rek da nga mën a dimbali sa bopp bu fekkee nag am ci mën a gëstu ci ngir yëpp moom boobaa tënk ngir war war moom waaye ñi mu laajee nga xam ne daa tënk ci ngir sàngam waaye da àgg na si masala moo xam ne nii xëy na gis na ma ngir wax ci leneen te te te loolu gën koo jubu ci foofu toll noonu ne loolu kenn du ko tere moom ndax ñoom ñëpp nag ci dëgg lañ nekk masaay bi yëpp mooy yi ñu xam ba ñeenti biir yi wala yu dul ñoom sax ci masaay bi ñu xamoon yëpp ci dëgg lañ nekk kenn ku ne ijtihaad def ba génn say ahkaam teg ko ci fu mu wér kon boo jàpp rek mel na ni jàpp nga ci wér wér boo demee ba ngànt waral tam nga war a bàyyi sa masab di fa di ko beneen masab dem te te fa nga ko teg loolu doon fu wér loola moom dara newu ci dañ bañ daal mooy dox ñu neex talfiq mooy ngir mu ne nga jël ci ci ci at yëpp looy defoon rek da ngay coppee coppale dajale loolu def loolu dañ koy bañ mooy talfiq waaye nag dem ba ngànt jot na nga gis ne atte bi moo gën a dëppoo sa mbir nga nga jëfandikoo ko waaw moom dara ñëw ci kenn du ko tere wallaahu moo sax sowal
kii moom de laaj mu ne ndax koo xam dafa nekk ci kër goo xam ne dafa mooy yàlla ndax bu fa jaamoo yàlla jaamu yàlla ga dina wér
waaw suñ si de jaamu yàlla gi de ñaar yu bokk la ndax mooy yàlla gi moom da ko war a tugg tugg réew bu ko tuggee tugg sell suñ borom mën na ko jéggal waaye nag saa gi nag day daal di bàyyi fa mu nekkoon daal di dem beneen rek te lu borom xam wax nañ ne bu fekkee day barab boo xam ne ak mooy yàlla dafa bari te mën faa jóge dem ci barab boo xam ne dañ fay topp yàlla loolu li gën mooy li ñuy wax hijratu bu dee barab boo xam ne mooy yàlla dafa bari lool ba daanaka topp fa yàlla yombut te nga am mën a jàppandik mën a jógee foofu dem ci barab boo xam ne ñu jàmm yàlla fa nekk kon dañuy digal nga gàddaay dem ci barab boobu nga xam ne fa nga gën a mën a jaamoo yàlla waaye nag loolu amul moom fi mu nekkoon mooy yàlla fekk ko fa tam déet nag mën na faa wéy rek nekk fa nag te tuub tuub boobu mooy yàlla ko te jéemal topp yàlla ci képp kàttan rek bu ko defee yàlla mën naa nangu ay jaamu yàlla am lam mooy yàlla mën na ko jéggal wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab
kii moom day laaj mu ne ndax jullit boo xam ne dafa ameel bor mbokkum jullitam ndax su wooree yàlla dina nangu ak kooram
waaw ñaar yu bokkul la di sëriñ seex ndax fay bor moom day day day àq joo xam daa war si diggante ak ki nga ko yoreel bor moom yeneen di waxoon ci benn aji seen matt loolu xam ni zulmun boo woomalee mën a fay te fayoo yaa ngi tooñ kon ñàkk fay gi moom bàkkaar la waaye nag jóg bëgg ci yàq koor yëtuwutu koor gi dara moom tolloo nag boo wooree nag loo gën a man ci ay jaamu yàlla ak sellal say jaamu yàlla day gën baax rek tax koor gën a sell waaye teewul loolu nga def noonu moom bàkkaar bu beru la wax na koor tuub yëtewut ak jaamu jaamu yàlla gi nga nekk muy koor gi dara yàqu ko wallaahu muwaffiq lis-sawaab mbokk mi day laaj mu ne ndax jullit boo xam ne dafa woor mar mar wu jéggi day woo xam ne ragal na ne mën na caa ñàkk ba kanam mu ne ndax kooku sañ naa dog ak ndax bu dogut ba yàlla dogal mu loru ca dañ koy jàppee ku xaru
waaw xaw naa ni roog laaj bi ñu laajoon ci ginnaaw de mooy ki docteur boo xam ne ku mën a woor wala mu dëgër ba fu woor kooku itam daanaka acte bi mooy dal ci koom rek ginnaaw mar wi ma àgg na foo xam ne nii rux am na rux sa dog daal li gën mooy mu dog bu demee ba loola jàll ba koor gi wéy mu fay bis boobee mu dogoon te fay dong lay def du kafaara loolu moo gën a waay ci moom tey bu ko defee defe na li ko lislaam sant moo gën muy dëgër bopp di woor ba jeneen lor di ko ci fekk te boobaa mën naa dugg ci aay bi waxoon ne wala tulqu bi aydiikum ilaa tahlukati bu leen di dugal seen bopp loo xam da ngeen di ci ñàkk seen bakkan tay ko te ki bakkanam da koo sàmm yàlla ko daal diñ ko doomu adama moo sàmm bakkanam bañ koo dugal ci lu koy sànk te lu mel noonu mën naa yóbbu bakkanam te boobaa ak tasaddu rek la ak tàng teengal diine waaye diine moom ak jàppandi la te yéen di waxoon na ne képp ku jëfeel sa diine rek da nga mujj dem ba ñàkk ko far sax moo tax diine waxas yi mu la jox rek yéen di saa son daa waxoon ne yàlla ni mu bëggee ñuy def la ñuy wax azaa yi muy jaamu yàlla gi ni mu ñëwee defee ko noona noonu la soppi kuy def ruxas itam bu ruxsa ñëwee nga nga jël nga jëfandiku ruxsa loolu inna laa yuhibbu an tuuta ruxasuhu kama yuhibbu an tuuta azaimuhu kon ñaari mbir yooyu di loolu loolu lay boole pour sa jotee daal te mën ko jëfandikoo na ko jëfandikoo bu asim jotee nag mu def asim kon Serigne Cheikh kooku liñ koy laabiré daal mooy ginnaaw mar wi àgg na foofu te bu continuer koor gi mën na ko indi lor mu dog bis boobu te bu demee wooree mu fay ak bis boobu mu dogoon te du ci ko faalante wallaahu moo fexe sawar
kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa am ay bëri julli yu bari nan la koy fayee
waaw sëriñ sax da bëri julli day ñaax fekke bëri julli yu néew la yu ñuy wax yasiirul fawaayid te mooy tolloog juróomi julli kon dañ koy sant julli gi teew bala koo julli mu fay juróomi julli yaa ko rawoon ba noppi fekkee fa nekkee di ko fay waxtu du jàll kon loolu lañ ko sant bu fekkee tamit day ñaari julli yoo xam ne ñoo bokk ñoo bokk waxtu lu mel ne tisbaar tàkkusaan moom it yàlla dogal julleegu doon tisbaar ba tàkkusaan jot kon faaw day jiital tisbaar door caa teg tàkkusaan bu bu ko safaanee rek du baax faaw rek doon la koy war a tekkadee fekkee nag bëri julli daa yées daa daa daa mat juróomi julli donc da ci yem képp képp wala ñeenti julli wala ñetti julli moom tartib bi dañ koy nekkul dañ ko bëgg ci waaye nekkul sart bu ko tartib bi te baax na waaye nag li gën ci moom mooy bu ko tartib bi day am bàkkaar bu ko lii baax balaa bàkkaar la koy gën dindi ci moom mooy julli julli yooyu ko rawoon te bëriwuñ door a fay gi teew gi ko raw nii bu fekkee ne julli yu ko raw daa bari lool lool ëpp juróomi julli jàpp juróom benn ba keroog la yàlla xam kon julli gi teew lay julli ba noppi bu ko jullee ba noppi léegi doo doo la fay nag julli gi nga xam ne doo la fay nag julli yee ko rawoon ci kam kàttanam la ko mën a faye ndax mën naa am mu bari bari goo xam ne mënu ko fayandoo benn yoon boobaa day def rek mm, saa yu ne muy fay kem kàttanam rek ba keroog bari ñu yore woon mate xam ngeen ne borom xam-xam yi ñu ngi jàngale ne bu sa boro bi sa bari julli baree ngay def julli ko julli rek julliwaat juróomi julli ci wetam boo ko defee rek dootuñu la yàppe ko sàggan xam ne masal boo julli tisbaar fekk see bari julli bari lool da ngay julli juróomi tisbaar loolu julli tisbaar bi teew boo àggee ci tàkkusaan def noonu boo àggee ci timis def noonu boo àggee ci gée boo defee noonu kenn du la jàppee ku sàggan waaye boo deful noonu nag sàggani julli bari julli yee ko yoroon defoo ci parce que fay ko dañ lay daan jàppee ko sàggan te loolu day indi bàkkaar wallaahu moo fexe sowal
mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àtteb takk jigéen joo xam ne dafa dafa ëmb ci njaaloo góor ga nga xam ne nag ëmb bi ci moom la bàyyi ko bëgg koo takk
waaw sëriñ Saar loolu dagan dañ koy araamal day bàyyi ba soxna sa yeweeku ba lay génn yi wala génn bi jaa ba tàkk mu door ko bu fekkee dañ koy may moom moom fi defoon moom loolu ñu may ko bu fekkee dañ koy may ba borom kër gi mu door ko ko may waaye jigéen bu tollob diggante kenn suñu ko takk te yeweeku dañuy bàyyi ba mu yeweeku ñu door ko may buñ ko mayee ci biir foofu mu toll noonu sëy bi du baax dañ koy dañ koy dañ koy dañ lay tas sëy bi bàyyi ko ba mu yeweeku ñu door ko may borom kër boobu wala ñu may ko keneen boo xam ne moo ko labas wallaahu mu faqat sawaab
kii moom day laaj mu ne ndax war na ci jigéen bu dee julli mu sol ay kawas ak ndax bu ko solut ak julleem dana wér
waaw jigéen de sëriñ sax lañ ko sant mooy mu muur ay cëram rek muur ay cëram mbubb mi mu sol di ko jullee mu doon bu mu wàcc moo xam day muur day muur ndëggu yi nga xam ne ki daal du ci feeñ daal liñ ko may mu génn ko daal mooy ay ay ay tenqam daal ak xar kanamam ay tenqam xar kanam mu war a feeñ ci yaramam waaye buy julli moom lépp am awara la dañ ko jàng ci seen fiq yi sol kawas yi nag xëy na bu ko jigéen ñi defee ngir bëgg a gën a mën a muur ay këram lépp loolu dara néew ci waaye bu jullee ci solti kaw itam kawas tam nag loolu teew julli gi baax na liñ ko sant bu ko defee rek moo xam daa sol ay kawas moo xam solu ko te julli gi baax na sol kawas yi nekku sart ci julli gi wér dañ ko digal daal mooy na fexe ba yére yi mu sol a doon yére yu jot sëkk yoo xam ne day muur këram yëpp te mu bañ a doon yére yu yaraax bu mu doon yére yu yaraax yoo xam ne day feeñal dara ci aw yaramam mu nekk bu talee te jot sëkk daal bu muur yaram yëpp rek boobaa bu jullee julli ga dana wér boobaa def na sartul awra te mooy muur na awraam wallaahu muwaffiq as-sawaab
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jaay xeeti kawar yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy jëfandikoo ngir jokk seen kawar ak xeeti jumtukaay yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ngir soppi seenu yaram
loolu sëriñ Seex li gën a lëng mooy daganut ndax lépp loo xam ne islaam daf ko araamal rek kenn waru koo jaay day nekk bokk ci marchandise yi araamal te waslu siyaare mooy jokk kawar saare loolu daf bokk ci ci di araam soppi deretam pare na ci borom xam-xam ñu ne dañ ko dugal ci soppi googu suñu borom tere ci soo tunni saa yi ñuy soppi seen jëmm yi am na ñoo xam ne foofu lañ ko dugal te ci médecine médecine sax na ne jigéen di ko di koy def bu yàggee mën na daan ay ay jàngoro kon nag day mel ne loolu ñoo xeesal buñ sukkandikoo ci ñaari tegtal yooyu muy soppi gi suñu boo xam ne fala yu xayirul xalxalaay te suñu borom wax ci soo tunni saa yi tëb tëb ko ci nit ñi ne dañ dem ba soppi seen i bind am ñu ne xeesal mais suñu ko dugal foofu kon dinaay araam am ñu ne bu dugg foofu tam médecine saxal na ne bu yàggee rek jigéen ñi mën naa dem ba jëlee ci ay jàngoro te nit ki lépp loo xam ne mën na ko andil jàngoro rek loolu da ko war a bàyyi kon buñ sukkandikoo ci ñaari yooyu yëpp rek danaa di nekk loo xam ne du ara day day aram ci jigéen ñi mu jëfandikoo ko te ka koy jaay moom da leen ciy dimbale te sëriñ boo xam ne ci benn yenn téere mi ne dimbale kuy mooy yàlla ci la muy mooy yàlla mi ngi mel ne koo xam ne day agresseur nga jox ko ngànnaay goo xam ne ci lay agressé nit ñi kon yow yaa ko jàppale ci crime yi muy def kon daal bu ñuy jaay nañ bàyyi xel ne am na marchandise yoo xam ne ñu fexe ba moytu ko di jaay marchandise yi la wi te moytu yu araam yi wallaahu muwaffiq as-sawaab
kii day laaj mu ne ndax koo xam ne day tukki nekk ci avion ndax mën nañ may nañ ko mu julli ci biir avion bi ak nan lay jullee
waaw ci biir avion bi fekkee fekkee daa ragal ne bu julliwut waxtu bi mën naa jeex balaa wàcc xam ne day waasu gudd daal bu duggee ci avion bi balaa wàcc waxtu wa jeex borom xam xam yi ubbee nañ ne sañ naa julli ci biir avion bi maanaam nag day jublu xibla teg si xar ba waxtu wu nekk daal moom mu jublu xibla loolu lañ ko sant moom bu doon naafila sax moom sañ naa bañ a jublu waaye bu dee faratam dañ koy sant muy wëlbatiku fexe ba fi xam fi xibla nekk mu fay jub mu jub mu jub noonu àggale julleem loolu daal lañ ko sant fekkee nag diir bi mu dugg ci avion bi doon diir bu yàgg xëy na balaa waxtu wee jeex danaa wàcc ci aéroport bi kon li gën mooy mu bàyyi ba wàcc suuf si julli waaye fekkee wóor na ko ne bu duggee balaa mën a wàcc waxtu wa jeex kon borom xam-xam yu bare bare ubbee nañ ne sañ naa julli ci avion bi ci sart bi muy jublu xibla waxtu wu nekk ba kër a julli koy jeex wallaahu muwaffiq lis-sawaab jërëjëf sëriñ bi xam naa laaj bi mooy mujj mu ne lan mooy àtteeb jigéen joo xam ne li borom këram bëgg ci moom bu ko nangoo def mu ne ndax loolu dana am jeexit ci ay doomam jëm am ak moom
xam naa jeexit gi ci doomam de moom siiw na ci aada ñu koy wax lu bare bare moom waaye li sax ci diine daal moom mooy def na bàkkaar moom jigéen ji bu fekkee la ko borom kër bi woo nekkutu mooy yàlla ndax jigéen daa bokk ci li ñuy wax addis bi ñu jàngoon léegi mooy topp borom këram daa bokk ci sabab yu koy tax a dugg àjjana ci lu gaaw te am na addis bi fi ñëw sax wax ne xataada moo ko solo woon wax ne jëlee na ci Kaabu ibnu Ubay moo waxoon ne jigéen dégg na ne wax na mu wax ne te jaar saxaaba saxaaba lu mu wax mursal saxaaba dañ ko jàppee addis mu wax ne jigéen bu àllaaxira lañ koy njëkk a laaj mooy ab julleem julli juróom bu amee yoon ñu doon ko laaj nag bu fekkee amoon na borom kër diggante borom këram nu mu demee woon te lii mu wax nii ñàkk topp borom këram dañ daal bëgg a dugg kon fekkee borom kër bi li muy sàkk si moom lu lu ko yoon may la kon na ko ci fekk bu ko deful rek mën na ci am bàkkaar te bàkkaar boobu mën na ko indi ay jafe-jafe ëllëg kon daal jigéen daa bokk ci ay jaamu yàlla am muy topp borom këram ci loo xam ne yoon terewu ko wallaahul muwaffiq lis-sawaab jërëjëf sëriñ bi kon ñu ngi delluwaat bu baax di sant sëriñ Cheikh Boussa Xasan mi nga xam ne moom la ñu àndaloon tey ci jataayu gàggantugu bi ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi na ko ci laaj yi bàyyikoon ci mbokk yi ñu ngi koy sant bu baax ci turu daayira muxaddamatul xidma di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu dëgëral ko te kattanal ko di sant mboolem ñi nga xam ne ñu ngi doon topp jataay bi ci biir jumaa ji ak ci mboolem jumtukaay yi nga xam ne waxtaan wi mu ngi fay jàll ñu ngi leen di sant di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defoon dégg ak topp